bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir ilxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw ñu ngi leen di nuyu ci baat bu ñu yàlla boole ñun ñépp mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa jasporaa bi yépp nag fu fi waay mën a nekk rek ci góor ak ci jigéen ñu ngi lay nuyu soppe yi xarit yi am di jàmm yi ñu ngi nuyu ñépp di nuyu suñu kilifa diine yi nga xam ne lii ñuy def ak wax su jubee ñoom lañ koy waxal ñoom lañ koy defal mu di xalif général yi nekk ci réew mi yëpp tous les xalif généraux ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen teg barab ak place bi leen yàlla teg di leen jox seen wàccuwaay ci suñu borom seen nuyoo nag nuñ koy defee rek lañ koy defee dañ koy teg ci loxol suñu wayjur suñu bàyyi suñu xarit ñu soppe cheikh seydi alxaaji cerno muhammadul bachiru ibnu muntaqa ibnu taha ibnu cheikh alxaaji omar ca luga di xalif général omar yéen ak mu njabootu cheikh alxaaji omar gi yépp moom bu ñu ko tegee ci loxoom rek fi ñu bëgg mu yegg yépp incha allahu taala dana fa yegg ñu ngi koy teg ci loxoom nag mu jottalil ñu ko naataangoo xalif généraux yi ci réew mi yépp nuyu mbokk taalibe yi ñi ci tiijaan ak ñi ci dul tiijaan yépp di nuyu ñi nga xam ne sax bokk ñoom ñoom diine waaye ñoo bokk réew mi te yàlla sant ñu ñu am ak ñoom jàmm yal yàlla may leen jàmm may ñu ko teg ko ci loxol abbé Jacques Jacques mu tegal ñu ko ci loxo monseigneur Benjamin Ndiaye di évêque bu dakaar ak mbooleem suñu mbokk chrétien yi ci réew mi yëpp ak waa jàngu bi yépp ak juif yi animiste yi ñëpp li yàlla doxale suñu digganteeg ñoom ñu war ko am ci jàmm yal na ñu yàlla may ñu am ko ci jàmm di nuyu opposition bi ci réew mi yëpp nag xam naa coow li bari na waaye amaguñ chef d'opposition loolu duñu ci dugg waaye képp ku yor parti politique te nekk ci réew mi rek ñu ngi lay nuyu ak fu sa parti parti woo rek ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit société civile di nuyu Ibadu Rahman Falah Chia teg yooyu ci loxol son excellence le président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne moo bokk jaboote ñëpp moom ak soxnaam ajaratu Marème fay Sall ak tous les membres du gouvernement di nuyu association des maires du Sénégal teg ko ci loxol suñu bopp suñu soppe di Alioune sàll maire de la ville de Guédiawaye moo xaritam soppeem di loxoom Cheikh Mbacké Fall tey nag balaa ñuy dugg ci waxtaan wi maa ngi jéggalu tey moom sëñ Abdou Abdou sax la Abdou tardé wut ah sëñ Abdou moom du tardé tey Abdou tardé wul tey maa tarde waaye tarde bii dama newoon ci itte boo xam ne yéen ñëpp ma leen ko waxoon ngeen wuutu ma ca waaye mënoon naa teel a yegg si nag wax dëgg yàlla ndax in eh, heure et sax waroon na ma fi fekk waaye ma xam ne itte boobu su ma ko doxewul balaa ñoo jóge fii day yàgg amaat na balaa moo ñëw pare ba may recevoir gan yi fi nekk itte booba day tardé te itte bu warta tardé la ndax bu tardé rek am lu mu yàq moo taxoon ma ne naa gaawantu rek dugal itte boobu ci diggante bi mooy indi retardu vingt cinq minutes bi waaye dinañ ko dabaatal incha allah jéem a taxaw 17 heures kon ñu ngi koy jéggalu bu baax ñun bu ñu tardé rek du suñu sago yàlla xam na ko ndax bokk na ci li ma gën a bañ ci àddina mooy tardé néewal nit doole ak injustice ñett yi laa gën a bañ ci sama dund tardé rendez-vous néewal nit doole ak injustice ba ko ñeenteel nag mooy xeebaate yooyu rek la sama rab yi bañ kon nag loo xam ne boo ko defee nit mu metti la loo xam ne buñ la ko defee mu metti la ah bu ko def kenn nag kamaatu diinu tu daanu li nga leble rek lañ lay fay te wolof nee na kuñ fay sa bor nga mer la nga leblee baaxutoon kon ñu ngi lu ñëpp ci retard boobu ñu ngi am mbégte nag tey ak contentement ci li xew altine bi weesu mu di daje bi nga xam ne xalif général de Tijane Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour ibnu Cheikhul Xaaji Malik woote woon na ko ca Tiwaawan muy mottalik jumaa ji fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin léegi moom taalibe cheikh yi dootuma leen wax dara tey moom maa leen di tàccu bravo tey moom fa tabarakallahu altine moom wone nañ ne nag fam nun aw amsik bi gayri xisaab bi ma doon wax ne seydina cheikh moom la ko yàlla teg ci loxoom dëgg dëgg nag taalibe cheikh yi wone nañ ne seydina cheikh wàll na leen ko ah liñ def état sax munu ko yaakaar naa bi Covid bi amee bi état di dajale lañ dajale woon yeggul fii ci benn lu matul vingt quatre heures nga dajale quatre milliards yu teg maanaam cinq milliards yu manqué tuuti yombul de kon nag taalibe cheikh yi bravo waaye waa Tiwaawoon bravo waaye xalifa bi yal na ko muurloo yal na yal na naal bi yegg ci kanamam bañ na inauguration bi tey la xalifa bee koy inauguré ak njaboot gi ndax tamit nag ah ku aye yaa aye te moo aye nag yal na mottalikoo ci ayam yal na mottalikoo ci ayam nii mu ko sumbee yal na yegg ak jàmm mu fekk ko fi ànd ak wér ak wérle ak mboolem njabootu Cheikhul Hadji Malick yëpp ñu àndandoo def ouverture bi nga xam ne bu ñu ko ubbee ya cey topp yëpp nag ñu door koo mottali waaye xol yëpp sedd na xol yëpp sedd na taalibe cheikh yi daal wane nañ ne nag desuñu ginnaaw mosuñoo des ginnaaw sax lu ma daan wax ci ñoom rek lii laa ci bëggoon encouragement laa ci jublu woon ndax fas lum daw daw daw daw te nekk ci course foog nga xàcc karawaas bi pour mu raw loolu rek lañ ci jublu woon waaye li ma waxoon ci Seydina Cheikh kañ fam nun aw am sik bi xëyri xisaab ci lay dugg si sax ndax looloo taxoon ñu bari naan Seydina Cheikh daf daan luxus ndax gisuñu lu muy liggéey te dara am taxawul te li muy joxe fu mu koy jëlee ca la waxe woon ne la yàlla defaloon yoon ci yàlla Suleymaan fam nun jëlal di dépenser aw am sik wala nga téye bi xëyri xisaab ci lu dul looy konte mu ne secret boobu man Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yàlla teg na ko ci sama loxo ca la waxee woon it ne dana tas nag ci samay taalibe mu ne mook sama faydu faydu ti fayda tijaniya seydina cheikh ne dana tas ci loxol ay taalibeem fa tabaarakallaahu moo tax cheikh al islaam alaaji ibrahim ñas baay woote fayda bii waaw faydatu tijaniya Seydina Cheikh moo ko waxoon ci dundam ne dana tasaaroo ci samay taalibe waaw waxuloon nag sama benn taalibe dafa noonu dana tasaaroo ci samay taalibe moo tax Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass Baye woote ci lim ci woote tas ko ci ay taalibeem kon nag ak keneen sax ku dul moom ndax Seydina Cheikh du waxantu kon nag daal buñ ci yàggee sax day am lu muy niru waaye la ma waxoon ca mbakk yu fay ba lu toll noonu wala lu ko ëpp laay waxaat ci lii am altine waaw damay bañ a tudd tur ndax su ma tuddee tur am na ñu joxe ñoo xam ne sax bëgguñ ñu wax seen tur te ñoo lañ joxe moo ëpp ñiñ tudd seen tur la ñu joxe fa tabaarakallaahu xam naa dinañ ne moom ak gémmiñam gu réy gi nu mu def man li ma nit ñi di wax maa koy waxal sama bopp fa tabaarakallaahu ndax am na ñu may woo téléphone kii nag incha allah taala lu ma ci wax alhamdulillah àddina bi yëpp a ngi koy dégg à la minute moo tax ma sawar di ci waxe man awma ma biir aw ma biti sama biti mooy sama biir sama biir mooy sama biti la Cheikhul Xaaji Abdul Aziz seen wax rek laay wax sama biir mooy sama biti sama biti mooy sama biir aw ma lu may nëbb luñ lay sosal nag kenn mënu ko bañ lu luñ lay fenal kenn mënu ko bañ te jamono yegg na foo xam ne mën nañu la indil audio sax ne shérif a wax lii fekk du shérif mën nañ la indil image ne shérif a def lii fekk sax du shérif ndax développement ak avancement moo toll foo xam ne rek mu ngi noonu waaye yooyu yëpp doo ko bañ ndax kuy waxal yàlla nag la daloon ña jiitu dana la dal waaw te man ragaluma laa yaxaafu law mata laa im nañ ñi moom maa ko gën a ñeme ci àddina bi yaakaar naa ñi ma attaqué ñëpp ak li ma attaqué néew na ñu attaqué Sénégal te dérangé wu ma nag dëgg dëgg nag dérangé wu ma yëngalu ma ko sax sama yaram yëguma sax ndax ñu ngi wax ci man lu bon dama jàpp ne ñëpp lu baax la ñuy wax rek ñii loxo lu bon dañoo yegg seegut ci lu baax li rek noonu laa ko jàppee rek waaw te lu yonent bi amut nag soxlawu ma ko lu Seexuna Tijaan yi amut soxlawu ma ko lu Cheikh Umar amut soxlawuma ko lu Cheikh Mohamad al Ghali amut soxlawuma ko lu Cheikh El Hadji Malick ak njabootam amut soxlawuma ko lu Serigne Touba amut soxlawuma ko lu Cheikh Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye amut soxlawuma ñi fi baax ñëpp ku ci ne teg nañ ci sa der bi loo xam ne maara deytaal yi ba ci bàyyi mii lu mu ne dégg na ko waaw ñëpp rek kuy wooteel yàlla rek dégg nga loo xam ne maara deytaal yi ci laay profité sax di def benn rectification bu tuuti mooy bi may wax sëñ Touba xam nga léeg-léeg wax ji mooy gaaw rek man nag kenn waxuma dara maa koy seetaan naan su ma ñibbee dama koy seetaanaat ba mu jeex erreur yi ma ci def yëpp ma souligner ko su ma ñëwee toogaat rectifier ko dama ne bi may wax dama ne Serigne Touba sept ans exil gànnaar noonu la sept ans exil exil Gabon noonu la dix ans résidence surveillée dama ne Touba te du Touba Jurbel la foofu rek laa jum waaw du Touba Jurbel la dix ans résidence surveillée Diourbel kooku xam nga ne dundam gi amu ci dara waaw dundam gi amu ci dara dinaa ñëw xam nga kooku dundam gi amu ci dara te ñaataat la sëñ Touba dund ku ko xam hmm? soixante yu teg la daal kon bu ngeen ko xamee léegi ngeen souligner ma ko waaw quatorze ans plus dix ans de vingt quatre ans boo ko génnee ci atam yi lan moo ciy des nga xam ne kon dundam yëpp ci fitna lañ ko ko teg waaye fitna jooju fu mu mujj ñaan def xasida ne yàlla ñi ma doon teg ni fitna bi jéggalal ñëpp irham jami al wara jeex na Seydul Haaji Malik lu mu dajul amul bañ ko convoqué ca ndar ba muy dem soixante-quatorze ans waaw mu ngoog soixante mille huit cent cinquante-trois la gane àddina génn àddina mille huit mille neuf cent vingt-sept waaw soixante-quatorze ans quatorze ans yi jiitu yëpp quatorze maanaam ba mu jàngee ba yàlla may ko lim may ba may gi commencé di feeñ la jiitu yëpp ci fitna la amul jàmm fen ba Gabon ba dellusiwaat ba ni mu génne àddina résidence surveillée la nekk ña koy seet si dañ leen di seet segg leen te day am seede de te du n'importe qui mooy ñëw seet si ko xam nga loolu metti na waaye yëngalu ko yaramam koo xam ne du wéet kuy wéttali ko yàlla di nga wéet naa ah, moom te moom loolu la mu ne man yàlla laay wettali ko la Serigne si Ahmad Tidiane si wa Al Maktoum waxoon bañ ko arrêté deuxième arrestation bi yóbbu ko prison mu ne alhamdulilah ndax sëñ kër si daf ma santoon benn xalwa xaw ma fu ma koy defee ngeen indi ma fii kañ ma faf defee ko fi rek benn yoon <laughs> waaw waaw mu ne sant yàlla la non Serigne Babacar si daf ma santoon benn xalwa ne balaa maa génn àddina naa ko ko defal may seet fan laa koy defee pour mucc faf ngeen indi ma fii fii la dàqee waaw kon léeg nga def nit lu métti yaakaar ne dafa métti fekk yaa ngi koy teral te yëgoo ko léeg ngay jàpp ne yaa ngi teral nit ki fekk yaa ngi koy teddadil te yégoo ko mooy la daloon di ma jaxate kala ak taalibeem ba léeg ma dégg ko ko nettali ma ne pirate la de ci man la ko jëlee jox ko keneen nag Sénégal amuñ honnêteté waaw ah, ma ne piratal la de ci man la ko jëlee ba pare di ko jox keneen du kenn xaadi ma jaxate kala la woon moom la taalibeem doon bës te lii maa ngi ko nangoo ci làmmeñu mawlaaya Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz baax xanaa leer na mu ne taalibeem moo ko doon bés loolu Cheikhu na tiijaan yi daf ko amoon léeg-léeg na gars yi la déglu di ko di ci roy <laughs> a jàmbur yi nañ ko bàyyi boo ca yeggut bu ko def waaw Seexuna Tijaan yi dafa mën ku koy bës boo ca yeggul waaye waaye bëgg dara ji bul tax ngay woo ñu di la bës yooyu yëpp baaxut de xaqaad yi ma jaxate ka la taalibe bi di ko bës nekkete mu ngi yor taab bu bënnagul bu bësee bës bës ba yegg si fi tab bi nekk bës góor gi ne um mu foog ne dafa neex xam nga ku lay bës nga naan um da ngay foog ne dafa neex bu wiiri wiiri rek ñëwaat ci tab bi teg ko ca bës góor gi ne um ba bàyyi te waxu ko ne tab la ba bàyyi ba bës bi jeex mu bàyyi mu ne ko doomukaay mu ñëw mu ne ko uuji yëpp mbaa du la foogoon ne dafa neex mu ne ko ah loolu laa yaakaar de mu wog tubéy ji wan ko fi tab bi nekk ni ko saa yu ma nee un fii nga ko teg may bëgg a dee mu ne ko waaye nag dama am lu ma ci jàngee mbaadu ñun li ñuy defal yàlla yépp nii mel seetal loolu mu ne ko doom dafa am lu ma ci jàngee mbaadu ñun li ñuy defal yàlla yépp nii la mel yaakaar ne neex na fekk naqari na yàlla seetal loolu xaadi du nit ku ndaw te fan yi maa ngi dégg ko naan xaadi pititit pititit xaadi ci min kibaaril awliyaa yi la bokk nañ bàyyi di tuutal wali yu yàlla yi ku jàngal Serigne Touba tuuti nga xaadima jaxate kala jàngal na sëriñ Touba Seydul Xaaji Malik di ko àbb téere téere naxu grammaire xëy na yooyu la ko nit ñi doon mere te xaadi pank la pank weesu wut mu nekk xaadi di atte genn góor mos na ko jam Serigne Cheikh di ko nettali genn góor mos na ko jam ne ko yaa ngi nii da ngay seetaan sabar dangay seetaan làmb mu ne ko yéene ma teg xaani fokk ma xool seen caacaay yi naka lay pour bu ngeen fi ñëwee ma mën koo atte su ma xooloon seen caacaay yi bu fi caacaay ñëwee nu ma koy atte mu ne ko looloo tax may dem ca làmb ja di xool seetal lool seetal te mooy dëgg buñ la fale dangay xam li tax ñu fal la mu ne ko koy bu ngeen bëggee rek ngeen jël seen xaad dootu leen ma gis ci yooyu waaye yéen ma fal xaad seen caacaay gi fokk ma wër xool seen caacaay gi naka ngeen koy defee pour bu fi ñëwee ma mën koo àtte bi ko Maodo àbbee téere ndaw li Maodo yebaloon xaadi bind lettre Seydi Hadji ne ko doomu soxna du àbb téere te téere bi may àbb maa ko taalif seetal loolu loolu la ko xaadi tong ne ko doomu soxna du àbb téere te téere bi nga may àbb maa ko taalif Maodo tëju ñetti fan taalif bu mel ni bam taalif sharaa ko yónnee ko ko xaadi yër ko ba mu yàgg ne ah, nag wi di mbuu mbuu mbuu ci ci dex gi bu màggee kenn dootul naan <laughs> dimbale na Seydi Hadji Malick ndax bu ko abaloon téere ba lii yëpp du ci am kon daf ko dimbale léeg nit def la dara nga foog ne eh, eh, daf lay eh, tuutal wala fekk daf la dimbale te yëgu ko moom mais xaadi min kibaaril awliya tiijaan la woon nam du tiijaan waaye mujjantalam tiijaan la daaliyaam bii kañ ku ko jàng ku ne ah xam nga ne li mu wax na Tiijaan yi rëy na Hmm? daaliyaam bii ku ko jàng di nga xam ne li mu wax see Cheikh rëy na daf daan wër nag mag ñi di leen cax di leen jéem a galgal noonu la daan def léeg mu seeti mel mag ne ko fu cigarette xaraam yooyu pour dimbale leen la ba demee ba ci ma ba jaxu ne yónne euh, maamu ndëri ne ma ba am nga gan mu ne ko kan la mu ne ko xaad yi ma jaxatika la moo fi ñëw waaye jot jot na maa cax de nee ma day laajte fu cigarette xaraamee ci tux fu mu boobu jëlagul tarixa bi fu tux xaraamee ci ci alquran wala ci téere fiq yi maba jaxu di ko ku xereñ moom it ne ko boroom xam-xam la xam na fi mu dafa pànk rek waaye dinaa ko won ne maa ko gën a pànk dal di sox fetali ñaari ngémmiñam la yoroon moom maba sox ko ba mu fees génn na ana qaadi mu ne ko maa ngi mu ne ko li ngay laajte fu mu xaraamee kii moo koy tere teq ne ko bu gën gi di tàkk kii tàkk kii daal moo koy tere fekk mu ngi sex gën gi di laaj mu ne ko gën googu daal buy tàkk li ngay laaj kenn terewu ko kii moo koy tere buy tàkk rek kii di tàkk xaa di jël gën gi yekk ko ko fëgg ba set dugal ci poosam ne ko kooku lu tere ñu ba ko <laughs> ne ko tere mu ñu ba gis nga mu ku ku ci nekk xikma la jëfandikoo ci la ko ne kaay ñu waxtaan ñu dugg ci biir waxtaan xaad yi génn génn teg mu ji jël tarixa ci jàng def daaliyaam bi nga xam ne néew na ko mën a taalif loolu te loolu yëpp dimbali mag ñi la ci jublu woon rek parce que xam-xam boo caxewut <coughs> xam-xam du génn te am na xoo koo xam ne boo bëggee génnee xam-xamam fokk nga cax ko ok kon fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin beneen bi ci des bi ma benn laayee la rek bu ma fi tuddoon firi ko primi laa juum mais ni ma ko jàngee baax na waaw mooy bi may wax ne wa is yarfau ibrahimu alqawaidu min albeyti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim bi ma koy firi dama tëb wa tub alayna ji firiwu ma ko loolu rek la woon waaye ni ma tuddee laaya ji noonu la yëpp nag maa ko seetaanaat waaw mooy wa fàttalikul is jamono ba nga xamee ne yarfau mu ngay yëkkati ibrahima maam ibrahima alqawaidu koñu koñu kaaba ga min al bayti ca néeg ba wa ismailu ak doomam ja ñuy wax ismail ne rabbana yow borom suñu taqabbal yal na nga nangu min naa ci ñun ci lii ñu lay defal innaka naka yow watub waaw kañ foofu da gis nga maa ngi ko naroon na tëja tëbaat watub yal na nga nangu tuub ci ku tuub si ci fii ak ñun ñi koy def alayna ja looloo tax xam nga ñoom ñaar la woon kon lu ci indi watub alayna lu indi taqabal minna te ñoom ñaar la woon defu ko mu def ko jamoo ba mu paree nag dafa taxaw ca koñu néeg ba wa azini naasa fil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiinaka min min kulli fajjin amiq fa taxaw yàlla ne ko wooteel mu woote keroog ku ne labbayka bi àddina tukki di nga aji ku waxoon labbayka ñaari yoon di nga dem ñaari yoon ku waxoon labbayka ñetti yoon di nga wax dem ñetti yoon boo ko waxoon fukki yoon it di nga dem fukki yoon ba mu ne allahumma yàlla ne ko wooteel mu ne képp ku ne ci sa roxu mu ndey ca alamul arwaax ñëwal aj si roox yi di tëb ku ne labbayka rek di nga dem benn yoon boo nee labbayka labbayka di nga dem ñaari yoon boo nee labbayka labbayka bi muy fukki yoon di nga dem fukki yoon maam Ibrahima doole jee bari moo bi doole ji bari maam Ibrahima doole jee bari te kii ndekete xaritu yàlla kese la ñi dooleem di bari bari nag tolluwul ni dagg-dagg wee ci yonent bi te mooy maamam di xoola yàlla ci maam Ibrahima maamam Hmm? tabaarakallaahu moo tax nag watub yal na nga nangu tuub alaynaa ci ñun innaka naka yow anta yow ak tawwaabu yay nanguwaa koo ni tuub arrahim waaye doo ca yem de koo nangul tuubam da nga koy yërëm boole ci waaw taqabbal yal na nga nangu minnaa ci ñun innaka naka yow anta samiun alim watub alayna watub innaka waaw wa tub alaynaa innaka anta samiun alim waaw rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alaynaa innaka anta tawaabu rahim waaw kay waaw yow yaay nangukaanu tuub bi te koo nangul tuub yërëm ko foofu dama ko doon jubbanti moom itam ñaari passage yooyu su ko defee am na ñu ma woo téléphone ne waaw ndax buñ sañoon nga dem ca woote ba Tiwaawoon def ca la nga am ñépp gis ko man ëpp naa def di man yàgg naa def ci Tiwaawoon te kenn yëgu ko am na yoo xam ne moo ko waxoon fii léegi nit ñi tiit te ay la ñi xam-xam nañ man xam nañ ne Tiwaawoon du fa def lu tuuti man damaa xamul lu tuuti sax man man xaw ma lu tuuti waaw ñi xam-xam nañ du ma def nag di wax man dama taamu ñaar yëpp baax na yàlla dafa ne alladina yunfiquuna amwaalahum sirran wa alaaniyatan fi sarraai wa darraai wa xiina al baasi yëpp baax na man sirriyan bi laa taamu man boobu laa taamu mooy li Serigne Cheikh doon wax ne njuga kebbe moom la ko doon wax de Euh, discrétion de Cheikh Tidiane discrétion de nee na baat boobu dong la ñu ko kebbee déggoon ci tubaab Cheikh Tidiane discrétion de discrétion man boobu laa taamu discrétion de waaw waaye ñëpp xam nañ ne man du ma joxe Tiwaawan lu tuuti waaye waaye waaye waaye kuy wàlliyaani sa bunti kër a tëggut ah te sama bunti kër nag mooy Tiwaawan ñëpp xam nañ ko di man lu ma joxe lu tuuti tiwaawan de te incha allah bii duma joxe lu tuuti mukk ndem sama doom ju nay jii ci kër gi ibu yéen ñëpp xam ngeen ne lu yàlla bind iboo ci gën a nay sama doom jii ci kër gi man dama naan nayam gi fu mu ko jëlee keroog dafa ñëw rek fekk may wàññi xaalis mu ne ma xanaa jumaa tiwaawan bi ma ne la ma ne ko yow loo ci def yow mu ne ma sii père li ma ci def ma la ko waxoon nga tiit dugal naa ko ci orange money bi ba pare ma ne ko yow mii ñaata la mu ne damay bañ sama jëf yàqu waaye li ma ci def bu ma la ko waxoon nga tiit ma ah, lu may tiital de kon def nga lu baax waaw waaw wax dëgg yàlla ma kontaan ci nag ma kontaan ci ndax boo amee njaboot muy def te du la tàggu te la muy def di lu baax mais fierté la fierté la moo tax sonn ma sax di ko enquête ñaata nga joxe yooyu waaw su ma ko waxoon nit ma jël nag <laughs> ndax damay bañ yeneen rakkam yi def wala magam yi def Eh, rek waaye comme noonu la ko bëggee it ñu bàyyil ko ko noonu rek ndax may noonu laa ko bëggee waaye ma kontaan ci lool nag waaw ibu ñëpp xam nañ ko dafa mën a korkoral eh, moo tax dépense su kër gi yeeg yi ci kër yëpp ci loxoom laa ko teg waaye waa kër gi dañuy jooy rek ndax du joxe dara munu ci mot du joxe dara gaz sax bu jeexee danañ ko ko wax ñetti fan mu ne ko gaz bu jeex nag yow it fan ngay traîner nit ñi loolu taxut ñu wax moom audit la def xam naa looloo tax mu nay waaw ah, moom audit audit la def waaw ah, tabaarkàlla waaye moo gën a nay ci li yàlla bind <laughs> keroog daal dafa ñëw fekk may wëññi xaalis mu ne ma xanaa jumaa Tiwaawan bee tax ma ne ko yow loo ci def mu ne ma si père li ma ci def ba sayit mi naan ma iboog shérif comme doomu bàjjan fa la fekk sayit bii waaw ah, mu ne ma bu ma la waxoon lu ma ci def nga tiit dugal naa ko ci orange money bi ma ne ko ah alhamdulilah waaye na ngeen xam ñëpp xam ne insha allahu ibrahima du def Tiwaawoon lu tuuti waaw bi ci desit nag bu ma kenn indil dara naan ma pour jumaa ji soit clair cëluma laaluma jegewuma na leer de ku am looy yóbbu xam ngeen fi ñu wax orange money yaa ngi fi lañ wax ca orange money ba ak ca expresso ba ak ca carte bancaire ya biñ koy wax en direct ñëpp a ngi koy seetaan bu ma fi kenn indil xaalis naan ma dugal ko ci jumaa Tiwaawan bi defuma ko de boole wuñ ma ci commission bi collecté kon collecté lu ma kenn leer na sama njaboot nag am naa droit kenn ku ne mën a la indi nga jox ma ma booleeg la ma am dugal fa ñëpp di dugal loolu am naa ci droit sama njaboot am naa ci droit ah bu ma nee sama njaboot nag am na ñoo xam ne juruma leen waaye seq naa koog ñoom waaw ah, te ñoom xam nañ man xam naa waaw la ñooñu weesuwuñ ñaari nit waaw ñooñu weesuwuñ ñaari nit lu may def ci àddina ñoom dañ ciy dugal seen loxo tabaarakàlla ñooñu noonu lañ ko bëggee ñoom maa ñoom ñoo bokk compte sama compte mooy seen compte waaw waaye daal bu ma fi kenn indil dara naan ma jumaa Tiwaawan bi duma ko jël de xam ngeen fañ koy yóbbu yóbbu leen ko fa man du ma commission bokkuma ci commission bi soit clair du ma commission bokkuma ci commission bi ñu bari nag dañ may woo téléphone na ma petit waaye du ma commission bokkuma ci commission jëluma xaalis leer na waaw ma def nii leer na waaw kay ñu door a continuer fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin kuy yóbbu yóbbul fañ wax fañ wax ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko nañ ko yóbbu foofu waaye la daal xol yëpp sedd na waaw bravo jaraw lakk ca jigéen ña waaw góor ca góor ña tabaarakallaahu daal wane nañ ne ñu ngi fi daal ils sont présents waaw les talibés cheikh kon yal yàlla fay leen ku ci def dërëmam rek yal na ko yàlla def ful ful Ah, la ci gën a neex am na ñu joxe te duñ tiijaan am na suñ mbokk mbàkke mbàkke yu joxe ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ah, pour l'islam la la ma waxoon ca Masaalikul Jinaan lay waxaat rek dëgg la dañ ne jumaa alaaji Malik waaye alaaji Malik moomu ko moo tax ko am na ko ma dégg ku ko wax xaw ma Mansour sëñ Mansour Jamil la xaw ma kan la ci ñoom xaw ma sëñ mu ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wala maam alfa kenn la ci waaw mu ne jàkka yàllaa ko moom waaye dañ ko idaafaal rek Seydi Hadji Malick waaye yàllaa ko moom nag kon nag fa tabaarakallaahu mu ngi mel ni nga ne masjidu nabawi ba ca uh, madinatul munawara yonent bi lañ ko tuddee moo tax ñu naan masjidu nabawi waaye yonent bi moomu ko yàllaa ko moom waaw masjidul haram sëñ borom a ko moom yeneen jàkka yi it juma Touba Touba la ñuy wax juma sañ Touba waaye sëñ Touba moomu ko yàllaa ko moom jumaa yëpp yàllaa ko moom jàkka yëpp yàllaa ko moom kon nag yal yàlla def mu sotteeg jàmm te yeggee ci loxol xalifa bi di Seydi Aboubacar Mansour mu yàgg ko jiite njaboot gi yëpp topp ci koom xam naa ni koy wax transparence ba yegg si ci moom di nga dellu ginnaaw ndax ci transparence ci moom la yem sëñ Babacar si Mansour su ko defee ma sant bu baax it ajaratu maam Njas Faal di nit ku baax bëggul sax ma tudd turam waaye dinaa ko tudd moom la le professeur Souleymane sekk bu bar ñi mujj denc génn àddina ndax ma woo téléphone jaare ko ci Ibrahima sekk ni faatu Sow saar defoon rek moom it mu def na ni mel jox ma ponkalum cadeau boo xam ne boole ca enveloppe boo xam ne rek ne ma daal waxtaan yi ngay def dimbale nga ñëpp waaw dimbale nga ñëpp beneen ma groupe bi sax la nga doon wax yépp maa def lii ci groupe bi waaw yooyu yëpp mbaaxam la rek xam naa ko nag bu yàgg a yàgg moom ak i rakkam ku mel ni Ramatulaay Faal ak fa tabarakallahu soxna Adja Ga maam Ngaan lañ koy wax waaye Penda la tudd Faal ak Cheikh Tidiane Faal bi xam ne sa moom it rakkam la moo fi moomoon allo taxi doon denc soxna Umu waaw ñoom ñëpp ci kër gi lañ bokk Adja Ramatulaay Abdoul Aziz Lo moo ko doon denc tabaarakallah Abdoul Aziz Lo seen seen maam Seydi Hadj Malick a ko jur kon ñoom ñëpp ci njaboot gi bokk kon ñu ngi koy sant bu baax moom jaratu maam Ndias Fall jaare ko ci Ibrahima sekk Ibrahima Seck it mu ngi may defal benn rectification bu ma neex suñ histoire ba toujours damay wax unité 9 dama juum foofu tamit unité 19 la man ma naan unité 9 rek keroog la ma Ibrahima sekk wax ne ma da ngay juum nag waaw unité du unité neuf mu ne ma damay bañ gaa yi di di laajte waaw waaw ah joor waaw ah unité dix neuf laa doon wax waaw waaw mu dix neuf la waaw man unité neuf laa doon wax toujours te unité dix neuf la waaw fala euh, imam loo mooy imam ba imam loo taalibe sëriñ saaliwu mbàkke la tabaarakallaahu mooy école Dior rek ci gannaaw jumaa ji ci ginnaaw école bi juste fa tabaarakallaahu loolu tamit rectification la bu am solo boo xam ne Ibrahima sekk ak tiijaan Tijaani moom a ko xelal bu ko defee ñu ngi yemoon fu ñu waaw waaye am na fu ma fa yemoon nett waaw kañ yow yaa ngi siiwul waaye Mansour siiwul mu ngi nuyu ñi toogal ci barab bi xaddimu Quraysh ñu nuyu Chérif Aydara fa tabarakallahu teg ci alaaji Malay Tall bu Cheikh Ibrahim Sall bu sëñ Xasan Dem bu Mawlana Cheikh Alxaaji Ibrahima Ñas Baay te di ko jaale moom alaaji Malay Tall bi moom laa koy jaal muy Cheikh Abdoulaye Wilane ñu koy wax Abdou Barham man bi ma koy xam mu nga ca ndar xam naa nit ñi danañ ne kii ku kuñ wax ñu mu ne xam na ko Cheikh Ablaye Wilane ba ma koy xam mu nga ca ndar mu jógee ndar conférence bi mu njëkk a def géejawaay fii marché sa marché bu bees bii man lañ ko patroné woon maag Cheikh Ibrahima Sall rahmatullahi alayhi wa radi anhu taalibeem bu ñuy wax naka naka Alioune Ndaw moo ko organisé woon boobu demagul Kaffrine nit ñi nañ bàyyi caaxaat man nit ñi dama leen xam bu baax a baax a baax waaw dama leen xam bu baax Cheikh Abdoulaye Wilane muy jàmbaar bëgg bàyyi dafa yàgg bëgg bàyyi li may wax ni alaaji Malay bi fekkee na ko keroog man ak moom ak Cheikh Ibrahima Sall ñoo ànd dem ca conférence ba premier année bi ñun lañ ko patronné deuxième année bi ñun lañ ko patronné kon ku ko xam la de alaaji Malay dëgg wala déet alaaji ma ngi nii toog ñoo ca àndoon ak Cheikh Ibrahima boobu douanier bu ñuy wax bi nekkoon ak Cheikh Ibrahima moom it est-ce que sant doon Wilane Ousmane Wilane keroog moo abal Cheikh Ibrahima Sall oto boobu Cheikh Ibrahima amagul oto dëgg la wala du dëgg il faut dire la vérité gannaaw gi nag Cheikh Ibrahima doyal nay oto boobu fu Cheikh Ibrahima jëm Wilane a koy yóbbu Wilane boobu douanier Ousmane Wilane Mercedes bi Cheikh Ibrahima njëkk a jënd mook bu professeur Amadou Tall bee niroo woon boobu mu ngi ko jënd quatre-vingt-quinze après ngénte Mouhamed sama doom bi nekk ci daara ja tey nga xam ne toll na ci am jabar fi mu ne man li may wax bon yàgg na de li may wax xam naa ko de nit ñi boo gisee may préciser nit ñi dañuy foog ne kii day wax rek léeg-léeg ñu ñaata at la am mais après samay at damay toog fii di leen ko wax mais li ma leen di wax dinaa ay école yu mucc ayib la samp kooku kañ tabax na loo xam ne tey bu ko fekkee ci bàmmeelam rek mu doyal sëkk ndax bokk na ci yooyu li yonent bi waxoon ne ku ko fi bàyyi lahum ajrun ghayru mamnun la yonent bi doon firi ku ko fi bàyyi daf lay fekk ci sa bàmmeel ba ba ngay ba bés penc di taxaw mooy ku tabax daara wala nga jàngal nit wala nga gas teen wala nga bind téere yooyu yi ni mel kon tabaarakallaahu ñu ngi koy jaale njobootu cheikh al islam gi yëpp alaaji ibrahima ñas baay muy cheikh abdoulahi wilaan abdou barham di ko jaale xalifa bii di sama soppe cheikh maahi waaye teg ko ci loxo seydi aboubacar sëriñ babacar ñas di caatu cheikh al islam alaaji ibrahim ñas baay ma dégg ko mu def waxtaan loo du waxu télévision alaaji ma lay xam na xam naa bi cheikh abdoulahi wilaan euh, feebare mu jël engagement boo xam ne ci kilifa diine def ko publiquement yombul tey doomu bàyyi waaw loolu nag lu ñuy tudd waaye engagement public alaaji ma lay xam na li may wax amul nëbbatu public la ko wax ne su bëggee wér rek man loolu mën naa jël engagement def ko waaye Ablaye Wilane nit di ko baax lank xam ne àddina bii moom teel fee jóge sax farata la cëm àddina bu bon bii teel fi jóg sax farata la fii fi ñu lay saaga di la mband ma rek kañ nga dem fa fële nga xam ne alaaji Malick Serigne Touba gars yi di tabarkàlla gundaandaat ba sa yaram sedd guy waaw waaye yal nañ fi yàgg rek te ànd ak wér waaw nañ fi yàgg te ànd ak wér yal nañ fi yàgg te ànd ak wér ak wér la mucc ak mucc le fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin euh, di leen jaale it koo xam ni sama xarit la woon dëkkoon Thiès sama wëllëre Ibrahima Mbeng jémi la nekkoon moo yoroon magasin d'armes maa ngi ko xam 92 ci laa xam Ismaïla Diallo arbitre international professor mathématique la ca Thiès ñoom ñoo tax ma xam Serigne Ousmane Diakhaté bii ci sëtu Xaadima Diakhaté kala ak Mbaye Kandji di taalibe sëñ Abdoul Ahad Mbacké eh, bi muy dem di faji bëtam yi ñëw na fii ci kër gi yaa deux mois trois mois euh, Ibrahima Mbengue tàgguma ànd ak jarbaatam fa tabaarakallaahu Ibrahima Diallo ñu ñëw seet ma mu tàggu ma dem États-Unis ñibbisi woon na nag bi mu ñibbisee jotu ñu gisee ndeysaan ba niñ ma woo mercredi euh, mardi lañ ma woo ne ma dafa daanu AVC ñu ngi ko yóbbu hôpital Ahmad Sakhir boobu la ca Thiès ma woo médecin yi woo Sidi Makhtar Kounta ñu taxawu ko yàlla def ci mercredi bi mu génn àddina dafa génn àddina ci bëccëg rakkam bu mbokkal ndey ak baay Aminata Mbengue moom it génn àddina ñoom ñaar lañ defandoor ci morgue bi te Aminata boobu kat woote na di laajte ndax Ibrahima mu ngi tane ñu di ko nëbb ne faatu na xam naa dafa yëg ne faatu na mu crise moom it fa la yem ñoom ñaar lañ bokk suul muy lu metti waaye nag yàlla jaamam lu metti jaamam rek la koy teg ku baax Ibrahima Mbengue taalibi Cheikh xaqan bëgg tariixa bi xam turu yàlla te boobu mu ngi sol tenue yor magasin d'arme bu camp tropical mbooleem lu polis am ci arme mu ngi camp tropical te moom moo yoroon magasin yi yor arme yi ba nim retraité muy ku baax foo ko fekk mu ngi kurusam lim xam ci turu yàlla néew na taalibe sax bu ko xam yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko moo rakkam ju baax jooju Aminta Mbeng yal na yàlla defa àjjana muy seen wàccuwaay ak mboolem ñeeñ fekke ak ña leen fekke aywa ñu ngi yemoon ci Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiallahu ci fukk ak ñeent yi nga xam ni ah sama nuyo bi tey dafa gàtt lool alaaji lay taal rek laa yem naa ma ko doon jaal waaye ñu ngi nuyu <coughs> ñi fi ne ñëpp nag Chérif ak alaaji Malay rek laa jukki woon waaye asatise yi oustaz Ahmed Sidi Sidi Ahmed Mbaye bu Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane oustaz Camara moom itam ñu ngi koy nuyu sëñ Abdou Aziz le grand technicien sec sëñ Abdou Aziz Diop Thierno Omar Guèye Mayib ak Souley bokkal ak Souley bu sëñ Mbaye Abdou nag Souley Ba bii mu ngi jógee eh, nakaati France tabaarakallaahu Chérif wax naa ko Saïd Guèye ak Ibra Guèye ñaari ngéyeen yi kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di nuyu ñi ci internet bi yëpp nag <clears throat> yéen waa internet bi aw ma seen fay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen sopp di leen bëgg ni ngeen ma soppee ak ni ngeen ma bëggee nu ni raw di ñaan yàlla takkee ko nag cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa bañ dugg àjjana bilaa xisaabin wala iqaabin wala munaqasatin ci lu yàgg ci kaw suuf gannaaw buñ dundee dund giñ bëgg mu ànd ak wér ak ak xaalis bu bare bare baree bare yal na ñu yàlla may xaalis bu bari keroog bi gaa yi di joxe dama ne billaahi ak a neexoon ma am cent cinquante quatre milliards yëpp ma ne jox naa ko kër Alaaji Maalik cent laa wax de su ma ko yoroon boobu da foofu moom kon dinaa tiitaru nag damay woote rek ne Abdou Aziz mbay boobu doon animé Abdou Aziz c'est mon Chérif Aïdara je donne cent cinquante quatre milliards fa wax ji di tëjoo waaw ah, boobu de bu ma ko amoon moom dinaa ko wax ñëpp dégg ko ndax daf may wër ni kenn du ko def ah, waaye yéene naa sax lu ëpp loolu kër Alaaji Malick ndax nu ma mel nag kër Alaaji Malick la léeg sax sama mbokk yi mer nag waaye nag man loolu laa gëm nag ay dara gi moom ndey bàyyee ko def ci man góor góorgóorlu waaye lu baax ci man nag alaaji Abdou Aziz la waaw lu baax ci man rek ba nit di ko junj sëñ Abdou la waaw kon Tiwaawan aw ma seen fay te ñi ma sopp bari nañ de xam naa ko de macha allah ñi ma bëgg bari nañ lool ba amuñ ci sago waaye bëgguñu ma sëñ Abdou lañ bëgg ndax man amuma man nekkuma man maa ngi ci biir sëñ Abdou dama Cerno Basiiru Muntaga daaxa Cheikh Umar waxoon mu ne ma dama laa wan na ñun ñaar ñu ànd sëñ Abdou wan ñu kon wax bi jeex na waaw man maa ngi ci biir sëñ Abdou man awma dara lu ma am rek sëñ Abdou ko moom da baax Malick yal ñu yàlla boole defal sutura kon wax naa ni Cheikh Seydi Ahmada Tidiane gën ko yombut ndëm am na gannaaw rasulullahi ndax ki defal intervention ay taalibe jàmbur lu jiitu ngay defal say taalibe intervention kooku wane na ne moo joboote ñépp wane na ne moo joboote ñëpp ki dem ca kaso ba naan génn leen génn leen yow taalibe lan nga génnal génnal génnal bañ jeex mu door a wax ana samay taalibe xam nga ne kooku kon bëgg na askan wi yëpp bëgg na mbindee fi yàlla yi moo tax dinaa ci am am na ku ma interpellé di ma laaj um faali baaji mu ne mu nga ci aéroport dafa gis Cheikh Seydi tiijaan Tidiane toujours buñ koy dessiner dessiner rek la day euh, am kéwél du kéwél la buy nekk ci wetam Seydina Cheikh amul photo encore une fois Seydina Cheikh amul photo photo boobu ngay gis ñu dessiné ko ak gël ak kéwél gi desin la dañ imaginer rek ne nii la war a mel ñu dessiné ko beneen bi nga xam ne photo reyal la noir et blanc mu kaalawu kooku du Seydina Cheikh sëtam la bu ñuy wax Ahmad Ammar bi Algérie di xeex ak tubaab yi moo ne woon ca montagne ba sëtu Seydina Cheikh la ñu tuddee ko Seydina Cheikh bokk na ci sëtam yi ko gën a niroo nag moo tax ñuy indi photoom waaye du Seydina Cheikh Ahmad Amar la moom soxnaa su tubaab sax la amoon ca France fa la génnee àddina ñu jël ko yóbbuwaat ko ay numaa bi tubaab yi di xeex ak Algérie dafa am ku leen siñaale ne borom kaala gu weex gële feek mu ngi ci montagne yi du ngeen mënal dara algérien yi ndax dina Cheikh demul jihaad il fallait doomam dem jihaad xam nga xeex français yi boo leen laajoon tey seen guerre ak Algérie moo gën a métti ci guerre yëpp moo tax algériens yi bari France te ñoom la français yi gën a respecté français yi algériens yi rek lañ respecté bi guerre bi métti bi métti dafa am ku leen xelal wax nañ ni sax ki leen xelal Sénégal gii la nekk ne leen naar bala ngeen seen mu kaalawu te xeexut nekk ci montagne yi su ngeen ko reyee di ngeen am problème mais feeg mu ngi ci montagne yi du ngeen gañe algérien yi dangeen koy jàpp yóbbu ñu fexe ba jàpp ko yóbbu ko France def ko résidence surveillée mu takk fa soxna tubaab ñu bàyyi ko muy Ahmad Ammar di surtout Cheikh Sidi Ahmad na Tidiane ñu def ko fa résidence surveillée ci lañ xeex ak algériens yi nag ba gañe leen foofa la génnee àddina it nag ñu yóbbu ko Algérie denc ko fa moom nag dafa duppati maamam Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi moo tax ñu def foto boobu naan na Cheikh waaye encore une fois Seydina Cheikh amul photo leer na ndax foto daaw ko jàpp hu xutbul maktum mu middil awliyaa yëpp ci moom la dajee photo daaw ko jàpp photo daaw ko ndax lumière du tàppe ci koom te photo balaa laa jàpp clash flash bi day tàppe ci sa kaw tabaarakallaahu bokk na ci may yi ko yàlla may photo du ko jàpp waaye nag li tax ñuy imaginer kéwél euh, googu ñi doon wax ne Seydina Cheikh amul métier daf daan béy lu ci tool yi di bay bu daan dem nag di seeti ay toolam ku ci am benn mouchoir rek mu may ma tey dama ko fàtte ku bu daan dem ci toolam yi di visiter buy dox bàyyi ko kaay leen waaw kañ buy dox benn rek génneel benn rek jox ma waaw kañ ngeen baal ma de ngeen baal ma bu baax tabarkàlla tabarkàlla yàlla def man sama bakkan yi comme robinet rek kon yàlla def ci mbaaxam bu daan dem di visiter ci àll bi xam naa ni loolu ku amul fit sax doo ko def <laughs> bu daan dem ci àll bi alaaji Malay moom Seydina Cheikh radiyallahu anhu bu génnee rek picc yi njanaaw yi dañuy naaw di ko tiim niñ daan tiimee yonti yàlla Suleymaan buy jàng zabuur euh, moom la euh, daawuda astafirullah niñ daan tiime yonent yàlla daawuda buy jàng zabuur ndax neex baat seydina cheikh bu mosaan génn bay dugg ci àll bi rek njanaaw yëpp dañuy naaw di ko tiim rab yi di génnee ci àll bi di ñëw bu dee yi nga xam ne ay euh, animaux sauvages lañ dañ koy dànd seetal loolu ay gayndeek ay jaan yooyu nga xam ne abi animaux sauvages lañ dañ koy dànd yi nga xam ne nag du ñu ay animaux sauvages ñooy ñëw di ko akolaat di fóon yaramam te kéwél yaa ca ëppoon xam nga kéwél dafa bëgg nit hmm, kéwél dafa bëgg nit ndax sorewul ak béy kéwél yee ci ëppoon nag loolu ndono la bu jëlee ci rasulullahi wax naa la fi ca ba may waxtaan ci yonent bi ne la bu mosaan di génn di sàmmi xar yéeg bëy yim daan sàmm bu demee ba ca àll ba day leen di regrouper ci benn taati garab moom rasulullahi sallallahu alayhi jël yet wi joxoñ leen ne leen yéen ñii yàllaa leen bind yàllaa ma bind dangeen am xel ma am xel seen xel ak sama bos moo dul benn waaye dofu leen am ngeen xel bàyyi ma am na xel am ngeen xel léegi nag xam nga lu ma leen di yëgal dugg leen ci àll bi ngeen lekk waaye lekk leen ñax gu ngeen moom mbéyee fu jàmbur yi ngeen bàyyi ko fa lu ngeen ci laal yéen ak yàlla ok lu ngeen ci laal rek yéen ak yàlla dal leen ne aca dem leen jur gi yëpp tasaaroo dugg ci àll bi mu tëdd ci taati garab bi moom sallallahu alayhi wa sallam ngege naayoo ay dàllam buñ demee ba tàkkusaan jur gi bu ñuy jof si dañ koy fekkaat fi mu tëdd di fóon yaram bi di ci barkeelu bu ko defee mu jóg toog wéeru ba jur gi yëpp daje mu jiital leen dugg màkkatal mukarram kenn ku nekk mu sa bunti kër mu wàccee fa sa boobu noonu la ñuy sàmmee ku am ñetti xar mu jox la sa ñetti xar ñetti béy ñetti yooyu ba ëllëg sa ca huit heures matin mu dajee wo mu taxawaat ci digg eh, ci weti kaaba gi jur gi yëpp ko nekk indiwaat sa jur mu dem sàmmi par semaine lañ ko daan fay buñ ko fayee par semaine juróom-ñaari xam mu dem jox ko baayam Abu Talib ne ko dépense su kër gàngoo <laughs> Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi nag loolu la doon ci maamam moo tax rab yi daawuñ ko daw gis nga boo ñem boo ragalee yàlla li yàlla bind yëpp daf lay ragal waaye soo ñemee yàlla li yàlla bind yëpp daf lay ñeme loolu lay sew sew moo tax sëñ Tuuba bañ ko boolee gaynde ga xiifal gaynde gi ñaata fan suñ mbokki murid dañ koy wax dëgg la xiifal gaynde gi ba mu xiif rek ñu ubbi ko néeg bi sëñ Tuuba nekk xiir gaynde gi pour mu bi gaynde gi demee ba jub ko rek boof xam nga ne gaynde gi ñu xiifal ay fan lekkuloo ñu boole laak benn nit nga war koo def benn wayaas bon waaye bu mu ñëwee ba fekk fi sëriñ bi toog rek dafa bóof tàllal tànk yi mooy moom it moom ngeen gis ñuy desine sëñ Tuubaa ak gaynde gi dëgg la ah la tubaab yi lu ne def nañ ko ko xam nga tubaab balaa laa nangul sa wilaaya àddina tukki xam nga dañu waroon di tester nit ñi seen wilaya yi fi mu ne nii ndax ku jóg rek naan wal naa wilaya sàngam sàngam sàngam kon léegi wax ji arrêté billahi wal kitaabi nañ koy teste rek ci gaynde rek léegi wilaya yu bari yi arrêté ku nekk naan sama wilaya gi sama wilaya gi te yoroo ci ñetti wilaya ñetti fari wilaya sax yoroo ko bëgg a rey nit ñi ah, tubaab balaa laa daan nangul di nga ko won lu concret sëñ bi lu sëñ Touba lu ne la woon tubaab yi moo tax ñu mujj delloosi ko bañ tëlee ci moom ñu delloosi ko man nii laay waxtaanee nag waaw man nii laay waxtaanee moo tax Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ñanaaw rab yépp daawuñu ko daw dañ ko daan ñuuxu pour barkeelu ci moom loolu mooy sabab bi koo ragalee yàlla li yàlla bind yëpp daf lay ragal. soo ñemee yàlla li yàlla bind yëpp daf lay ñeme ok la wattandiku kon moo tax ma taxaw foofu it ci la gaa yi di potoxlu nag ne Seydina Cheikh dafa yoroon ay jinne njeberkat la woon jawaratul kamal ci la def njeber bi nga xam ne mooy jàpp taalibe yi kon kuñ fi waxati ne njeberkat nga bul mer ñu ne ñaari baat moo am ci jawhara te mii nuñ ko ci arab muy baatu asqam boobu waxoon naa ci ak baati mutalsam ñii contre tariqa tijaan yëpp ñaari baat yooyu lañ mënta supporter siraatika taamil askam ak mutalsami te xoolal soreewuñ jàngal ma jàng jawhara nga dégg allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati almutahaqiqati alhaitati bi markazi alfuhumi walmaani wa nuuri lakwani almutakawinati laadami saahibi alhaqi rabbani albarqi alastayi bi muzuni alarbahi almaliati li kulli mutaaridin min albuhuri wal awani wa nuurika allaami alladi malata bihi kawnaka alhaita bi amkinati almakani allahuma salli wa sallim ala ayni alhaqi allati tatajalla minha عروس العقائق عين المعارف الأقوم سراتك تام الأسقم اللهم صل وسلم على تلأة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه ñàkk dégg rek waaye boo déggoon di nga xam diggante boobu la fa yàlla roof al asqam waxoon naa la ko fi yow mi miin alxuraan demal rek inni saqim dañ ko tëggaat baat bi waaye du feebaru yaram feebaru xol namm yàlla la waaw boo nammee yàlla piir dootoo wér maam Ibrahima yàlla piir dootoo wér te maam Ibrahima ba mu koy wax xërëm yee son moo ko naqari woon boobu ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ak juróom-benn a ngi ci biir kaaba gi yàllaay mburu yàllaay batañ sa yàllaay lu ne mu metti ko te boobu maam maam Ibrahima neuf la am juróom-ñeenti at man sama baay yi lu leen dal boobu baayam bu bokk ak baayam ndey ak baay moo ko yaroon ku ñuy wax azara moom baayam dafa teela gaañu li dal yonent bi moo dal maam Ibrahima yonent bi sax xëy na moom ba muy am ñaari weer ci biiru yaayam la baayam gaañu maam Ibrahima. bi mu amee ñaari at la baayam gaañu ñu jox ko baayam bu ñuy wax azara wa iz qaala ibrahimu li abihi azara loolu moo ko indi baayam boobu ñuy wax azara te bokk ak baayam ndey ak baay moo ko yar moo ko daan jaayloo na xërëm yi yàllay mburu la ko daan jox mu dem di jaay léegi sax bu demee mu yàgg mu ne teema coppati nopp bi aññee ko mu yàgg mu ne kon ma tooñ waaye bu yeggee daal day yëkkati yàlla ji kuy jënd lu amul benn njëriñ kuy jënd loo xam ne mënta jeñ lor mënta xëcc njëriñ mu ngi nii yàlla ju mënul dara ku ko soxla mu ngi nii day jaay ba jant bi so du jar mu jigi ñu am ñu ñëw ne bàyyam kii du jarale de ñuy def ba jarale moom du ko def bàyyi bi jàpp dóor ba muy bëgg dee ba léegi noonu lay jaayee mu jigee azara ne ko bul ma jaayee la ti waaye balaa mu ko koo wax nag fa la plan amee Cerno Bachiru nag moo daan wax ne mooy wax ne mu ne Cerno Abibu rahmatullahi alayhi moo daan wax ne fawqa kulli palang palang maanaam lu palang féetee koo rek palang gën na ko féete koo ndeysaan maam Ibrahima ne man daal tey damay porte malaat moo indi saqiim ji bi gaa yi di jaay yàlla yi ñii di jëm te tool ya mu ne indi saqiim man daal damaa wéradi boobu feebaru xol lay wax ndax xërëm yi ci kaaba gi neexu ko bi gaa yi demee nag ba génn mu mu xool ne moom dañoo des ci dëkk bi mu dem ubbi kaaba gi jël sémmiñam fajaxe yàlla yëpp ferej leen ferej ferej ferej ferej ba xol bi sedd yàlla yëpp ñetti téeméer cent 366 yëpp mu toj leen ba mu des ponkalu yàlla bañ tegoon nag ca kaw ne bii haada huwa akbar bii mooy yàlla ju mag ndey ndar gi mooy kii mu ne kii bu ma ko tojee sax ñu am lu leen neex mu jël simmiñ wi mu doon tojee yàlla yi wékkal ko ko ci mbagg mi maam Ibrahima xam yàlla bi gaa yi ñibbisee pour ñu jawhara layal bi gaa yi ñibbisee bañ daan def ku ñëw rek da ngay jubali kaaba ga nuyu yàlla yi doota dem sa kër ku ñëw rek gis yàlla yi xalangu ba magu kaaba mag ñëpp daje. ñu xool xool xool xool daal di ne inna ah. sami'na fatan yuzkaruhum yuqaalu lahu ibrahim am na ngone suñ daan digg muy xas suñ yàlla yi boo demee moom la waaye li ñu jaaxal nag ah mun yàlla yu ndaw yi rek lay ñoo ñoo ju mag ji moom kenn laalu ko est-ce que moom la seen xel xaw a dem ci li xeli maam Ibrahima junj yàllaa ko dugal ci seen xel yi ñu ne les cinq les cinq sages nañ daje moo tax état yi duñ caaxaan de nga cinq sages moo fi amoon magistrat yi président yi ñëw def ko les sept sages benn tey baax na muy sept jawhara rek les cinq sages daje ne dëgg dëgg laqad alimta ma haula yantiquna fekk dafa am ñu rocceeku dem ci maam Ibrahima ne ko a anta faalta haada li alihatina man alquran lay wax de a anta ndax yow mi maam Ibrahima faalta yaay def jëf ju ñaaw ji haada ji li alihatina ñeel suñ yàlla yi maam Ibrahima ne man ñu ko mu ne fasalu kabirahu laaj leen ki gën a mag xëy na moo mer faraxa yu ndaw yi <laughs> xëy na ki gën a mag moo mer ndax yàlla yu ndaw yi ngeen ko utal mu mer falaxe leen pour moom kese mu des fi gis nga mu ngi leen di woon ne yàlla benn la ñoo ñu dem nag les cinq sages wax ak ñoom ñu def nag seen réunion ni dëgg-dëgg ñun nag ay dof lañ ñooy wax di ci seen biir yàlla ndéy la la génnee lañ doon waxante ci seen biir yàlla génnee ko def ko ci alxuraan ñu dëgg dëgg nag ñun ay dof lañ de laqad alimta ma haula yantiqun ñoo gën a xam ne kii mënta wax lu tax ñu di ko jaamu waaye su ma nukki su alaaru aussi ñu ne nañ nuur ci suñ caacaay gi rek nag waaye bu mu si bu siiw yàlla génnee ko ne ko watt ci alxuraan ci lañ ne nag kii nañ ko fexeel nañ ko lakk ba Namruud bañ dajee dajee dajee dajee lu ne ñu seet pour mbugal mu gën a métti seen réunion ba troisième jour réunion la Iblis soppeeku mag mu am quatre-vingts ans dugg ci seen biir ba muy ñëw nag. garde yi ci bunt bi ne ko yow foo jóge ndax gisuñ trace dara ci moom coow li bari am benn ci cinq sages yi kenn ku génn mu ne ko man la màgget mu baax ci xalaat boo xam ne daal bu ma leen xalaatalee ba noppi lu ngeen xalaat sama bosa ko gën a ñëw ndax dama fee yàgg ñu ne bàyyi leen ko mu dugg ñu ne ko yow yaay kan mu ne bu leen ko wax kenn nag may iblis su ngeen bëggee rey Ibrahima dangeen di taal taal bu ne yëlëm yëlëm ngeen def ko ci mbaq sànni ko ci biir taal ñépp ne bi xalaat bi moom kenn amu ko woon mu ne mes moom Iblis gisatuñ ko aywa loolu taxu ñoo jóg pour woon la saqim boobu laa lay wax xam nga saqim weesuwul ay yàlla yàlla ñu utal ko ndenn feebar boobu nag moo tudd saqiim min asqam leer na ci ku bëgg mu leer ci sa nopp waaw kañ te maam Ibrahima mooy yonent bi ndax mooy maamu moo tax bi ñu laajee yonent bi ne ko yaay kan mu ne may siraatikal taamil askam may yoon wi nga xam ne moo feebaroon démb feebaru namm yàlla ittabi millata abika ibrahima jaata toppal sa yoonu maam ibrahima moo tax yonent bi bi ko Seydina Cheikh laajee yaay kan dama la fa waxoon ni jawharatul kamal mooy photocopie yonent bi ni ixlaas qul huwa allahu ahad nekkee photocopie yàlla ndax Seydina Cheikh moo ne yonent bi wax ma yaay kan mu ne ko allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati walyaquutati almutaxaqiqati alxaaitati bi markazi alfuhumi walmaani dinaa ko toj boobu mooy bii di ñëw samedi bii di ñëw incha allah ci la ñuy tëj waaw loolooy asxam bi mu ne man maay yoon wi nga xam ne maa namoon yàlla ba feebar démb tey ma réussir ko mooy siraatika taamil asqam yow mi may déglu boo xamul luy asqam loolooy asqam ba pare nag boo demee ci pays yàlla ba araf wu ne garaat la fa martaba la fa loolu pour ñi gëm baatin te xam ne baatin am na ci la ñuy takkalee waa tarixa bi ci la ñuy takkalee waa tarixa bi généraux yi tarixa bi yépp ci baatu asxam boobu lañ leen di takkale fa lañ leen di mëntelee garaat boo demee ba nekk xutbul fardul jaame ci baatu asxam boobu ci ngay monte ci nga déggee Cerno Bachir waxoon ko fii ci sama gàmm gi yéen ñëpp a ngi toog mu ne Cheikh Oumar ñetti fan la fa def barab bu diis la moo tax hmm? ba wax Seydi Hadji Malick ne benn fan la fa def Thierno Bachir du nit di moo ko doon wax fii yéen ñëpp ngeen dégg kaset ah, yaa ngi fi waaw ah, loolay asxam ah, baatu asxam bi foofu la jóge moo tax ñu ne lu tax mu naan siraatika taamil asxam ma firil la ko mooy man may yoon wi nga xam ne maa namoon maa namoon yàlla démb ba feebar may yoon woowa tey réussir ko al asxam ba tey nag ku namm yàlla ba feebar ndax jamono bii franc-maçonnerie nim ne xus ngóor jigéen ne xus mooy yàlla yi ne xus nga bàyyi fi yëpp jublul yàlla faw nga feebar ci sa xol ndax mbonteef yi am te mënoo ci dara nag ku ku bëgg góor jigéen kenn bëggul di lesbienne kenn bëggul yi xew ci yu bon ci àddina bi yëpp kenn bëggu ko yooyu nag boo xamee yàlla siraatika taamil asqam mooy la ma Marcelino waxoon ca Espagne yéen ñëpp ñëw na fii ci sama gàmmoo gi ngeen gis ko ma bàyyi ba Bachir mu feebar te kenn yëgul ne mu ngi feebar boobu mu ngi boobu euh, yàgg na mu ngi 2011 la woon su ma mu ngi woon clinique Madeleine nettali naa ko fi ba tey ma dem Marcelino ne ma xam naa lu ko feebar mooy yàlla yi am ci réew ma ak ñàkk juboo famille moo ko def feebar waaye dara dalu ko te mosul gis Thierno Bachir moo woo Thierno Bachir jox ko ko muy wax ak moom téléphone moo ko indi ci sama gàmmu gu Marcelino ak Guillermo ñépp gis nañ leen Thierno Bachir eh, Thierno Bachir du ko tuuti de biñ ciy waxtaan mu ne ma baaba xam nga kii lu mu bëggoon ko ah mu ne maag yooyu yëpp ñu bàyyi yàlla topp ko mu ne ndax boo amuloon kilifa awma kilifa kii lim la wan wan ma ko ñu topp ko mu ne ma waaye ñii seen mbir dafa lënt mu ne ma da ngay delluwaat ci man ansaariyu ilallah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullahi amanna bi mu ne ma marsalino ca bokk mu ne ma dañuy seese ci xadratul ilahiya ñoom ñooñu lu luñ fa taataanee ci ci ci ci ci ci nuuraaniya ñoom ñu taataanee ko fa ci zulmaaniya ndax ñoo ànd waaw mhm. Mhm. Mhm. waaw mu ne xalifa bi toog nii Cheikh Mahi benn waxtaanam mu ngi ko ci doon wax waaw mu ne ma Marcelino mii ci la bokk mu ne ma ñooñu gëmuñ yonent bi gëm nañ yon ci yàlla Isa te gëmuñ yonent bi mu ne ñooñu seen mbir leeragul yàlla àtteegu leen mu ne ma Marcelino ci la bokk mu ne ma ñoo xam ne yàlla atteegu leen te daf leen di bàyyi ak seen pas-pas ñi ciy def di ci dindi te tuubut sama xarit la Marcelino bi mu ñëwee fii faj na fi ñu bari fii ci kër gi fii waaw ah, ñoom Adja Salaba ak ñii ñëpp moo leen faj te day tiye rek def nii rek am na fu mu lay téye daal bu waxee li muy wax bàyyi la nga dem. te du jullit ah li may wax de yaakaar naa ñëpp fekkee nañ ko fii la woon ci kër gi de mu ñëw ci gàmmu gi wàtt ñëpp gis ko muy fottasu nag boole ci ah, ñu wooyu muy fottasu maa la ko ah kaset yaa ngi fi boo duggee ci internet bi Cherif Dabakh TV di nga ko gis jeex na waaw ah? ah, waaw ba Mansour mii ñëwee xam nga ñoom dañoo sob di ko ñaanloo mu yëkkati cinquante euro jox ko boobu Mansour amagut doom mu ne ko demal nga jënd ci sawarma ak sa jabar di ngeen am doom mooy aysatu mi kon aysatu aysatu sawarma la <laughs> ah? gis nga yàlla lu mu bind bàyyil yàlla mooy fekk dof bu amul benn responsabilité mu jël la ko neex def ci moom loo ci mën mu fekk ko sañ si benn gungu gumaaral mu bàyyi ko muy xottu ñebbe wuy taxawaalu yàlla dara safu ko waaw moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu lu foofu lañ toll woon siraatika taamil asqam léegi nag mu des mu talsam boobu la gaa yi wax nag ne mooy turu jinne wi nga xam ne ci la Seydina Cheikh dëxëñ lim dëxëñ ba ku ko sikkar nekk tiijaan li ma lay wax ni ay tonni tonni tonni ten ton ay téere la ci gaa yi bind ba fii ma toog di wax ak yow ñii contre tarixa tijaan yëpp jawharatul kamal lañ mënta supporter ñu ne baati mu talsam moom fa la Seydina Cheikh di dafay ñee ngoom yi moo tax mu indi ko ci jawaratul kamal ñu ne parce que mu talsam du baatu arab turu jinne la ma lancé ñëpp defi na ñëpp nag laa wax bàyyiwuma kenn nag man nag waxi dof laay wax lancé naa ñëpp défi ku am xam-xam ci jinne lancé naa la défi amul benn jinne ci kaw suuf bu tudd mu tal sam amul ah li ma xam ciy jinne bari na nag dama ko topput rek waaye billaahi li ma xam ciy jinne ak a bari li ma ci mënit ak a bari ñi xam-xam nañ ñi ñi may déglu ca ndar xam nañ li ma ci mën ak a bari <laughs> dañoo tuub rek dama di tuubeen rek waaw ah, xam nga sa yaay bu santee juuf nga yàgg lakk dëkk bi da ngay tuub rek waaw ah, ah, waaw waaw da tuub rek dangay ngay tuub rek waaw ay ma tax ma déggee ñaa a jabari jinne man ba may am jabari jinne daf di tey ba ma ko faseeg léegi xanaa mat na fukki at ak juróom-ñeent fukki at juróom-ñeent mat na ko ren la am vingt ans ñuy wax fii seen wax yu rëy yii la jinne du dara te boobu dama doon essayer rek ah, ndax lu ne war nga ko essayer ba xam ko ah, boo ko essayer wut xam ko doo ko mën a wax mooy li ma jaxate ka la doon wax ni bu demul ci làmb yi nu muy àttee ku jógee ci làmb ji bu demul ci sabar gi lu muy àttee ku jógee ci sabar foog nga dem pour xam waaw ah, boobu copte la woon nag ma am ci ndigal nag ma am ci ndigal ci sëriñ Alfa Xumma ñu waxtaan ci lu yàgg ma wax ma moom bésu jinnim wax ma fi ngay jaar ak yooyu yëpp ñu mos ba xam door a bàyyi ba boo ëllëgee ku la ci bëgg a xëlamtoo nga xam ne du nii hmm, am naa am na ñoo xam ne tey nag du ma am jàmm <laughs> aw ma ca doom nag aw ma ca doom ndax looloo doon charte bi donc koo xam ne sëñ ko may dama ne ko moo ci am doom ndax boo ci amee doom dañuy sonal sa njaboot ndax dañuy ñëw di seet si seen njaboot te doo ci mën dara ba tey nag maa ngi am ak moom relation bu rafet. sama waa kër yi xam nañ ne daf may seet si billaahi sama waa kër yi xam nañ ne daf may seet si yenn relation yu rafet bon yooyu du dara parce que boo bëggee wax ci moom monde jinde foog nga xam monde jinde nu mel mais boo ko xamul doo ci wax te boo intégré wut ci seen biir doo xam nuñ mel c'est ça le problème lii rek la man lu ne dama ci ruux sama loxo bi de lu ci bari dama ci ruux sama loxo bii ba xam ko yii léeg-léeg mu màtt ma ma muñ léeg-léeg mu lakk ma ma muñ mais bëgg a xam moo ma koy yóbbi parce que bu amuloon lii may def duma ko mën a lay amul benn jinne ci jinne yi bu tudd mu talsam amul dañ ko ñemewut sax bokk na ci lii jëñ jinne pire ayatul kursi yu ak jawharatul kamal wa nuurikal laami il wa nuurikal laamii e, alladi malata bihi kawnaka alxaaita bi amkinati almakaani wa nurika laamii jaata kay balaa ngay yegsi ci mutalsam lu ko jiitu Oustaz Sidi yéen laay déglu de yéen xam ngeen ko dégg ngeen ma jàng fi léegi jawhara du leen ko wax wax leen ma lan moo jiitu ni sëriñ Babacar si Abdoul Aziz di def laay def tey acca bismillah ihaatatil mutal sam foofu rek laa soxla yéen itam bu ma leen waxee de leen bar mooy dee leen gaaw ihaatatil nuuri ihaata mooy ki peek moom rasulullah a nuur mbooleem leer yi yàlla bind yépp te ñuy leer moo ko peek moo ko dajale moom yonent bi ixaata mooy peeg ndar kepp mboolem leer yi yàlla bind muy leer rekk yonent bee ko ixaata moo ko peeg wa ixaatati nuuril mu talsam mu ne pour nga bëgg koo xam nag mënoo fi nekk di lim leer yooyu ndax bariwaay waay mooy mu talsam yu ñu tënk la te dëpp def ko muy burit almutalsam mooy lu ñu tënk pétrole bii buy jógee extérieur di ñëw saar brut lay doon looloy mutalsam pour nga déglu ma pour nga dégg ma yow mii dund tey ci fii ci Sénégal pétrole bii di jógee extérieur moo xam Arabie Saoudite la wala fu mu jógee buy ñëw bay dem saar pour ñu raffiner ko brut lay doon bu yeggee saar nag ci lañ ciy génnee gasoil ci lañ ciy génnee essence ci lañ ciy génnee pétrole ci lañ ciy génnee génne génnee génne yeneen ba ci gaz bii ñuy toggee te ba mu ñëw bërit la ku ku la ko joxoon doo ko jëriñu ku la ko joxoon nag doo ko jëriñu mais foog mu dem raffinerie SAR ñu jàpp ko raffiné ko génne ci nag gasoil kii consommé gasoil taxaw ne defal ma gasoil kii consommé essence taxaw ne defal ma essence ki am lampe tempête ca kaw ga indi lamp indi butéelam jënd pétrole yóbbu def ci lampe tempête am taal ki bëgg gaz dem jël gaz yooyu yëpp ci brut bi la jóge mooy mu tal sam leer yi ñu jël tënk ko pakete ko def ko ci benn paquet bu ñuy wax mu tal sam ba ku soxla leer bu jógee ci jamaaliya nga ñëw jël ku soxla leer bu jóge ci jalaaliya nga ñëw jël jeex na Seydi Hadji Malick moo ko wax foofu nuurun axaata bihi anwa anwaarun xaajibatan anil xaqiqati kull al xalqi yallaahu Maodo Maodo ko firi ah Maodo ko firi ah jawara bi ñi ñi mu jaaxal gaa yi baat boobu rek la ko Maodo firi mu nu leer gi nga xam ne mboolem leer yëpp ci moom la cosaanoo te moo tënk leer yépp almutalsam loolu lay firi soxlawul dem di sori mutalsam mooy talsam rek ah amujil xabla mali hudurin du talsam la amujil xabla mali hudurin du talsam la mooy allahu muhammadu jibril boo fi nekkoon naan allahu muhammadu jibril day yéex ñu ne la ah, mu jël xabla mali xudurin nga sikkar ko mu gën a gaaw nga am allahu muhammad jibril hmm? kam jasha fiikim talsam la talsam la yesu talsam la te talsam yi bari na te yëpp yii turu yàlla la li yii turu yonent bi la yii turu malaaka yi yuñ booleeg turu yàlla la loo ca xam nag xam nga ko loo ca xamut xamoo ko kon weddi baaxut al mutalsam mooy leer yi ñu dajale tënku ko def ko muy burit leer na waaye du turu jinne amul benn jinne bu tudd amul benn jinne ci jinne yi bu tudd talsam amut ndax dañoo ñemewul sax ak nuuril mu talsam ñemewuñ ko ndax ñoom ci safara la leen yàlla bind tàkk-tàkkal safara ci la yàlla bind mboolem jinne yëpp moo tax ñemewuñ safara ñemewuñ leer lu dul ña nga xam ne ca jinne ya gëm nañu yàlla demal ci alquran shihaban rashadan bidiw yi bu demee di déglu ji wax yu lu bidiw yi di jëriñ day fàq leer lay doon rek jubali leen bu ko defee ñu daw ñoom jinne yi waaw kay shihaban rashadan kon jawhara mu ngi noonu danañ ko firi incha allahu ci fin bi dañ xam ne turu jinne nekku ci tur wuy jal bu nit newu ci waaw amut Seydina Cheikh ëpp na loolu ëpp na loolu te boo ko fiiree rek di nga xam ne dara jinne bokkut ci ci jawharatul kamal wa amma nag kenn du ko jàng te yoroo njàpp kooku charte la ci ci ci charte la ci salaatu bi ndax doole jee tax boo waxee ñu ne waa alxuraan nag bokkuñu alxuraan c'est pour tout le monde il est accessible lii privé la fii may waxee yow am na ko yor numéro président Macky Sall direct Amadou Sall doomam yoru ko damay wax rek ne xam nga ne Amadou Sall doomu ma président Macky Sall laa wax ku ne xam na ne yor na pré numéro baayam direct ah ca dëgg dëgg dëgg ajaratu maram nag ajaratu maram fay sàll nag yorul direct numéro président Macky Sall bokkul ak yi ministre yi yor Macky it am na numéro boo xam ne ku mu nga xam ko doo ko xam yooyu affaire yi privé la jawhara privé la ku amul visite privée bokkoo ci <coughs> bokkul ak mu nga manqué ngay dem ci meeting ba meeting ba moom sa pour tout le ñii ne ñuy seen ñii jege ñii di tàccu mais visite privée tête à tête c'est entre vous et le président de la république jeex na moo tax Jawhara c'est entre vous et les prophètes visite privée la booy dem visite privée da ngay correct sa portable dañ koy nangu doo duggaaleeg daray arme dañ lay visiter parce que yaay dem privé doo yor benn luy numéro sonorisation loo mën a enregistré yëpp dañ koy jël teg ko ca bunt ba ba nga wëññee ko jëlaat sa yëf dem parce que lan la visite privée la waaye meeting baa ngi est-ce que daañu visite waa meeting bi duñ visite kenn jawhara privé la ku koy song ko ne rek yaa ngi soxla tête à entre yow ak yonent bi kooku nag dañ lay jox charte charte bi mooy booy dem bul yor portable dañ koy nangu charte bi mooy doo yor arme charte bi mooy mooy mooy mooy bii nag charte am c'est très simple et facile mooy yoral njàpp jeex na waaye xanaa kañ charte am na fu ni ñu ne lu tax nag ngay jàng jawhara te jawhara bii ngay jàng ñu ne foog nga yor njàpp mu mat sëkk te faat yaa ngi nii boo yoree ngantal njàpp mën ngaa tiim jàng faatiya ma ne du benn buñ jaxase lu bokkul faatiya c'est pour tout le monde lii c'est visite privée lii c'est privé moo tax kenn du ko jàng toog ci kaw kenn du ko jàng ci kaw luy daw moo xam mbaam la walla fas la wala na xar la wala euh, gëlëm la walla welo la walla moto la walla jakarta la wala oto la wala bato la wala avion la wala fusil la lépp luy daw kenn du ci toog di jàng jawharatul kamal ci suuf rek wala nga wattee ko vingt salaatul faati ku ko ciy def nag conséquence bi moom doo sori te gisoo ko li may weddi nii ah li ma métti nag da ngay loraale ñu ci bokkut boo koy jàng ci oto balaa douze yi di yegg oto ba accident wala mu paan man maa la ko am sama benn xarit bu baax euh, bu doon dem Côte d'Ivoire ci jamono bato ya moo ma ko nettali mu ne ma ñu fàtte rek di wasifa ci bato bi di jàng jawhara mu ne ñu jékki-jékki rek bato bi di tourné kenn xamut fu bato bi jëm mu ne ci lañ door def constat ne ndekete jawhara bi la ñu arrêté mu ngoog borom daal nee na bu ko kenn yor bu ko kenn jàng te yoroo njàpp xanaa kii kay wane na lii li dafa sell bu doon affaire yi jinne wóor na leen wóor yàlla ne jinne moom bëggul sax njàpp moom ji bu dee affaire yi jinne jinne moom bëggul sax njàpp déjà contradiction am na jinne bëggul njàpp moo tax franc yi yëpp ku ciy julli bu jàppee ci sa kanam it dana laaw laal awraam ba njàppam toj mu door a julli parce que loolu la jinne yi soxla jinne soxlawul njàpp nu mu gën a bonee rek maa la ko wax jinne nu mu gën a bonee rek noonu la soxla kon bu doon yëfi jinne la borom du la ne jàngal jawharatul kamal bii mais attention na nga njor njàpp na nga yor njàpp wudu an kaamilan la wax sax Seydina Cheikh mooy njàpp lu mat sëkk boo jëloon bande collante sa loxo di métti nii catu baaraam bi rek di metti nga ut bande collante laxas ko ci xam nga booy jàpp mën nga ko teggi masaa ko nii rek dem te se terewul mën nga ci julli farata waaye mënoo ci jàng jawharatul kamal ndax wudu an kaamilan la borom wax mooy njàpp lu mat sëkk mu ne soo amul njàpp lu mat sëkk bàyyil ma fi jawhara te remplacer ko ak vingt salaatul fatih waaw lii leer na kii bëggul kenn gaañu te jawharatul kamal dafa mel ni haute tension mille boo ko téyee nooy def grillé soo jëlee mille wat bi branché ko sa biir kër nooy def day griller sa appareil yëpp taal sa kër mais da ngay ut ay transfo transfo boobu Senelec moo koy ut Senelec bi mooy muqaddam bi nga wàcce sa biir kër muqaddam bi moo la koy jox nga wàccee sa biir kër am compteur compteur boobu cent vingt lay lay lay contrôler appareil yi ci kër gi boo amee compteuru cent vingt baax na boo amee cent baax na waaye sa portable bi branché ko direct ci cent vingt bi te amoo chargeur lu tax ngay am chargeur branché ci sa portable branché ci courant bi parce que adaptateur la en même temps sa chargeur bi jëy jëy jël courant bi portable bi soxla moo tax muy def mañax mañax mañax mañax mañax mañax mooy mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal ba mu ne regg naa du buy clignoté noonu lay def li ngay chargé mooy mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal bu arrêté rek mooy regg naa mooy suur naa jeex na waaye boo noon sama portable bi dama bëgg mu gaaw a chargé nga jël ko ne ko dagaj ci cent vingt bu kër gi mu grillé ah loolu jawharatul kamal yow lay grillé même sax bëgguñu nga di ko jàng wéeru day def day tax nga gaaw a paralysé moom toog nii rek la soxla jàng ko sax wéeru day tax nga gaaw a paralysé waaw kañ di ko jàng nii di wéeru ci dara day tax nga gaaw a paralysé moom nii rek la nangu ni ma toogee nii nii dara bañ laa nga bañ a laal ci dara te yor njàpp lu mat sëkk waaye waaye borom ni mu ko waxee nañ ko defee noonu armée kañ boo cay dem li camp bi bëgg loolu ngay def alaaji mali boo nekkee police li policier li eh, règlement police ngay topp bu gendarmerie règlement gendarmerie ngay topp waaye mënoo ne policier laa di def li civil yi di def dañ lay dugal ci kaso bi wa hakaza amul benn problème mënoon sax dafa ne jàng leen ko te bu ngeen yor njàpp ngeen mën a wax ne kii affaire di jinne la mais na nga yor njàpp lu mat sëkk door koo jàng waaye kii xam nga ne sell na kon lu nit di wax ci jawaratul kamal amul lu ci waay wax c'est faux ñu dem dinañ ko firi nag samedi bii di ñëw insha allah mook salaatul fatih moom rek la ñuy firi ak salaatul fatih wax nag sang bi nu mu génnee àddina ak ba muy génn àddina lan la laaj ci mujj laajam ak lu mu mujj wax tudd baati seede yi door a dem foofu lañ koy jeexale ak ban bés la tombeeloon ak ban waxtu loolu samedi bii di ñëw la incha allah waaye tey ñu dem jawhara leer na foofu asxam bi firiwuma jawhara de asxam bi laa doon leeral ak mutalsam bi ndax ñaari baat yooyu la gaa yi mënta digg nanguwuñ ko sax déglu ku koy wax yaakaar naa leer na de waaw te dina gën a leer sax incha allah buñ ko fiiree ba nga di gis yàq bi waaw di xam ne lii du waxu nit waxu yonent la waaw te yonent waxu bokk la waxu kenn boo ko déggee rek di nga xam ne lii moo ko wax moo ko alxuraan a alxuraan moom boo koy dégg xam ne waxu yàlla la boo ci xamul dara it bu àddoo rek boo ko dégloo rek nopp bi mooy njëkk a nangu ne lii min ilaahi ci yàlla la jóge waaw kenn mënu ci dara tubaab yi gën a bañ alxuraan sax xam nañ ne alxuraan du waxu nit waxu yàlla la waxu yonent bi boo koy dégg xam ko moo tax sax Seyd Ahmada Tiijaan yi wax ni ba may lim keroog nag yi génnee nit ci tariqa bi ñett yi ma tuddoon muy cigarette ziyaare istimdaad ak ñu toj sa yuur nga ne banaa cigarette bi cigarette bii ñuy xëcc ci la bokk na leer de pon bi ñuy log bi naar yi suñ mbokk naar yi di def ci seen suufu tuñ yi ñii ci suufu làmmeñ ñii di ko log-logal ca la bokk pon la Seydina Cheikh wax ñaar ma wax bi gën a élémentaire boo doon kaf ba jël xob xob xob yii yaa xam xobu lan la bu wow beroon nga def ko ci biir kayit raab ko comme noonu gaa yi di foyee naan damay tux booy xëcc rek dog nga xob yii laa wax de xamoo xobu lan la sax nga ne damay fo rek jël kayit gi wala nga jël warga wii warga wii ñuy naanee ataaya nga jël kayit raab ko xëcc tux dog nga ci tarixa bi ndax yaa ko raab looy raab da ngay contester moo tax contestation bu nekk nag am na lu ca war borom la ngay ràbb doonte da ngay kaf dog nga ci tarixa bi bii xew bees it na xam na ci la bokk mooy chacha xawm chicha du noonu lañ koy wax chicha bii ñuy tux ci restaurant yi ak ci euh, discothèque yeeg baar yi chicha ci la bokk boo xoolee ñaan chicha la safut du dëgg médecins yi dem nañ ba xam ne chicha moo gën a dangereux sax cigarette ndax moom day atteindre direct poumon yi ñu naan ay fleur lañ ciy def ak parfum cigarette lan la ay fleur lañ taba lan la ay xob la bu la neexee ñu parfumer la ko taba jaune yi bu la neexee ñu parfumer la ko golowaas xam nga jamono golowaas am na golowaas bu set doon waaw waaw jeex na ay fumaar la waaw achiche achiche moog yàmba ñoo bokk ndey ak baay ci maam yaa lañ tàqali rek waaye ñoo bokk ndey ak baay bii xees bii ñuul moo tax gars yi buñ lay tànn loo sax dañ la naan pon mu xees dafa am pon mu xees ak poon mu ñuul sëñ Babacar si radiyallahu anhu Serigne Cheikh a ngi koy nettali ngeen dégg nee na ba ba ba ba gorom ñëwee di xaadir te day tux mu ne sëñ Babacar ngan gi neex na lool waaye nag daal li may jëfandikoo du ko ci boole mukk mu ne lan la ñu ne ko mu ne ah moom bokkul ci tarixa bi kañ bàyyi ko lam bëgg laaj leen ko ban pon la bëgg mu ne mu ne soxna si ne leen pon mu xees mu ne sëñ Babacar ne loolu yëpp am na ci yem pon mu xees ak pon mu ñuul waaw ah, waaw kay mu ne kon jëndal leen ko ba mu soxla ah gorom la woon te xaadir la woon ah? te xaadir yaa sax nangu wuñ tox de cheikh naa cheikh saat bu moo bind ci loxoom ne man saadi bu man cheikh naa cheikh saat bu su ma doon tànn ñaar ñii ku ma ciy jiite mu ne kii màndi ak kii tux mu ne damay taamu kii màndi bu màndiwul ci période boobu mu jiite ma julli wëlis kii tux mu ne kii màndi bu ji bu màndiwul ci période boobu man sa man saadi bu man Cheikh naa Cheikh Saad bu tànn naa mu jiite ma wëlis kii tux ñu ne ko lu tax mu ne kii màndi mànditeem ci boppam rek lay yem kii tux nag ñaata nit lay lor te mooy dëgg nicotine mu cigarette ñaata nit lay rey te yow miy tux moo tax toujours damay wax ne ku am faru faru yi tux moom boo rek ut malaanu càngaay balaa dee nga dee yow ba pare ku ci amit jëkkër juy tux moom boo yeboo rek uti malaanu càngaay wala ne ko nijaay yeewi ma ndax balaa dee yow nga dee ba pare yow jabar ndax nicotine bi nga xam ne moom lay dégager buy tux moo gën a bon moom bi muy xëcc boobu moo gën a gaaw a rey parce que moom la gaa yi di noyyi te boobu boo ko xëccee ba ëf ñaata nit nga lor ñaata malaayika nga lor ñaata jinne yoo xam ne yu yiw lañ te bëgguñu xet gi nga lor leen ñooñu est-ce que mën nga leen a war baalu leen àq la ma fi waxoon nag ñëwaat moo tax Seydina Cheikh ñëpp waroon nañ ko jox àllarba. Ah, ndax ba mu ko teree tey défense de fumer mamnu alal tadqiin no smoking foo dem ñu ngi ko fa bind waaw ah, bu dee euro moom ay cent cinquante euro ngay fay boo tuxee ci lieu public bu dee Allemagne trois cent euro ngay ngay fay ma profité ci nuyuwaale Abdou Aziz tabarakallahu Guèye ca Allemagne ak soxnaam ajikunta di santaale it kii nga xam ne mooy docteur Mouhamad Ba di pharmacien ca Rufisque moo fi yónnee enveloppe bi mosuma koo gis xaw ma ko jox ko Mansour Guèye ne ko nel shérif moom rek laay seetaan waaw mu mu jox ko docteur Yakhouba Faye docteur Yakhouba fay jox ko Mansour ñoom ñaar ñoo àndoon mu ne ko ne leen shérif dimbale na ma lu bari ci tarixa bi moom rek laay déglu maa ngi koy sant di ko gërëm te moom ak ñi mel ni moom nañ yëg ne man seen jaam laa yéen laa fi toogal lu ngeen bëgg rek maa maa nga ci ak yéen jeex na man waxuma fi dara lu jëm ci sama compte waxuma fi dara lu jëm ci sama poche li ma fi wax yépp pour jaami yàlla yi la ñoo ko moom kiy wax nag kiy dégloo ko fi bàyyi kon jërë ngeen jëf ñu wey moo tax na leer de chacha ci la bokk du chacha la ñuy wax chicha ci la bokk de poon rek la sey dina Cheikh wax jigéen ñi moom dëgg-dëgg dama waxatul sax seen wax nangu nañoo jàng baax nañu waaye def ci am ñu saay-saay lool lool lool dañ bëgg tux trop léegi jigéen ñi ëpp ci senegal lu ñuy tux waaw maa ngi leen di ñaan man jigéen ñi samay xarit lañ bàyyi leen tux waaye waaw bàyyi leen tux waaw léegi senegal jigéen ñi ëpp lu ñuy tux waaw jigéen ñi ëpp lu ñuy tux tey ci senegal loolu biñ defee recensement ci lañ ko wax ne Sénégal tey jigéen ñi ëpp lu ñuy tux mais loolu nag gàcce la waaw ah, gàcce la de suñu mbokk jigéen ñi maa ngi leen di ñaan bàyyi leen ko te cigarette li muy bon bon bon bon ci jigéen la gën a bon ndax jigéen moo gën a fragile góor Seydina Cheikh ku joxe tarixam nag doo jëfandikoo poon ku jàpp tarixam may sant alaaji Badara gay bi dugg si léegi ak alaaji Souleymane Kane ak alaaji di Diop gis nga lii ma sol tey ñëpp naan rafet na samedi bii paase la alaaji Badara Gaye bi indi tissu bi jox ma bi may dem ma jaar ci sama tailleur bu baax ba yiw bi di taalibe maam boroom Touba di Cheikh Lo Ndam Broderie nekk ca Yaraax euh, nekk ci xaar yàlla ci weti station Shell ba ah total station total bi ci xaar yàlla mook palaasam ñoo jàkkaarloo muy Cheikh Lo Ndaam broderie lu ma sol rek moo ko ñëw muy ku baax nag waaw waaw di taalibi maam borom Touba tabarkàlla waaw mooy ci profito di santaale maam Cheikh Mbakke sa alxames dañ gisante mosu ñu gisante nii ñu ngi door a gisante am barab bu ma demoon mu fekk ma fa ni ma lu corona corona du tee yow dama lay akolaat ndax dama laa yàgg a sopp te gisuma la nii dama lay akolaat de ñu akolaatante tabaarkal na ah, maam Cheikh Mbacke waaw AIS ah, moom moo ko jiite association boobu le moom ak euh, Serigne Cheikh Tidiane Sy bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin doomu bàyyi Alaaji Daawda Camara nag moom ma ko présenté foofa muy Serigne Babacar kamara kon na leer bépp xeetu póon ku koy jëfandikoo dog nga ci tariqa bi loolu moom kum neex nga wax lu la neex waaye charte la ci tariqa bi te charte buy génnee nit la na ko ñëpp xam am na ñuy tox nag naan waaw bokk ci gaayee koy garaawal gaayee waaye billahi ci la bokk sëñ Abdou nee na bi yëf yi taqar naase bi taqar se mu ne sëñ Babacar si ne leen ñaar rek laa leen di wax soxlawul sax masala képp ku gëm ne cigarette li ci Seydina Cheikh amut jëlal sa loxo gas fu Babacar fekkewul nga gas sa loxo ba lii dugg nga suul ko ne bu fekkee li sëñ Babacar si wax dëgg la yàlla na sama loxo bi génn mu ne boo génnee waale loxo rek nga xam ne sa duma Babacar mu ne beneen bi ci des ku am loo ciy sikk utal janax xam nga rey janax dara newu nga rey ko ubbi gémmiñ gi sexal ko benn mégo cigarette jublul ko penku comme kuy suul néew ak cigarette bi ak janax ji nga jublul ko penku suul ko une heure de temps boo wëññeekoo di nga fekk ñu wëlbati ko mu jublu sow yooyu yëpp sëñ Babacar Sy ko waxoon une de temps boo ñëwee dinga nga fekk ñu wëlbati ko mu jublu sow tukkat kanamam du jublu mu penk buñ ko dencee te li ma fi waxoon nit nag ma waxaat ko billaahi ñii tux waroon nañ leen a won ku tux ba génn àddina ni mu yàqee càngaayam yi ni ko bi yëpp ay génn yii ci bakkan yi lay jaar yii ci bët yii ci gémmiñ gi yii ci fi muy demee kabine yii fi muy tuuree ndox yëpp fépp lay jaar di génn kenn du ko mënati arrêté loo ko defal ci wétteen mu pirse ko bu ngeen ko yéexee suul rek am gàcc wax naa leen ko fi am na kilifa gu ñu doon yóbbu Tiwaawan di ko suuli maa nga fa keroog weñ ñi dañu doon biiw comme ku yor médd billaahi wal kitaab bi dañu doon biiw comme ku yor médd keroog bi ko sëñ Abdou Al di jullee dafa gaawantu jullee gi ndax weñ ñi wiiw wiiw wiiw wiiw wiiw kenn nettaliwum maa ngi taxaw te kilifa la woon mais daf daan tux te ñu ngi ko dugal ci kees encore tëj kees gi mais weñ ñi topp kees gi wiyu wiyu wiyu keroog gàcce gi ma am mosuma am googu gàcce sëñ Abdul Amin yal na yàlla dolli leeram moo ko jullee keroog damay tudd bañ a tudd tuur waaye xam naa ko nii ma leen xamee moo tax nag ñiy tux waroon nañ leen a won ku tux ba ni muy mel da billaay daañu bàyyi tux waaye laa yusminu wala yuxni min juin du faj xiif du faj mar ah sama nijaay Tom day 1983 moom dinaa tudd turam na ma baal nag ca Italie <laughs> sama nijaay Tom ba ma fi tuddoon bi ñuy nekk soo koon boobu mu mu mu commencé di mosantu cigarette docteur bi ne woon ma nu mu tuddati sax si Rufisque lañ ko mujjoon avec te docteur xaw ma naka xëy na moom moom mooy seetaan dina ko xam waaw du ñu yóbbu ko ci docteur man maa dem ci docteur ne ko xupp ko mu bàyyi cigarette mu ñëw docteur bi ne ko ah man de li ma xam lii la dal nii de cigarette la de boo ko bàyyiwul de fii yëg yaakaar naa euh, deux semaine rek di nga dee ca la doxee bàyyi cigarette ba fii may toog di wax ak yow. 83 li ma lay wax nii 83 la woon ca Sokone ca la doxee bàyyi cigarette bi fii ma toog di wax ak yow mu nga ne di dund ah, te bu loolu amutoon xëy na kon mu ngi kimmi ba tey waaye wóor na ko ne cigarette dara baaxu ci waaw moom sañ naa ko tudd sama nijaay la waaye nag maa ko magee aslëf waaw te moromante nag waaw muy sama xarit nag waaye docteur Jaxate waaw kañ waaw docteur Jaxate est-ce que du moom a yónnee tur bi sax waaw ah, docteur Diakhaté sama xarit la woon mu ñu ngi ko mujj affecté Rufisque maa ne docteur Diakhaté bu ñëwee tiital ko ne ko boo bàyyiwul cigarette da ngay dee docteur mu ñëw docteur gën maa ay ju ne ko boo bàyyiwul cigarette fii ak 15 jours da ngay dee de ca la ko bàyyee kon yëf yi laa yusminu wala yughni min ju'in du faj xiif du faj mar doo ci amee yàlla doo ci am yonent bi doo ko bàyyi cigarette lu muy jëriñ amul njëriñ ku bokk ci tarixa bi nag bu koy jëfandikoo du tiijaan ak ku mën a doon na soit clair du tiijaan moom na wax lu mu doon waaye du tiijaan ndax borom tarixa bi nanguwu ko ooy yaay kan nag benn dina fi nekk di nga rey sa bopp ci cigarette bi rey sa bopp ci ba Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi te doo ko yëg ñu wéy moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi limal naa la fukk ak ñeent yim digoon ñi du taalibe tiijaan mhm. bi li ma naa la ko léegi nag ñu dugg si ci fukk ak ñeent mu di quatorze yi nga xam ne nag moom la dikk ay taalibeem yi jàpp tarixam te di ko doxal balaa ma ciy ñëw ndax dafa neex ba ëpp damay bañ tudd neex neex yi fekk li waral neex neex yi defuñu ko moo tax damay tudd yii ba noppi door indi neex-neex yi ndax gaa yi yii rek lañ topp bakkan yi rek lañ topp fu mu gën a nooyee rek cuuraay li di gilli foofu lañ bëgg man du ma doxalee noonu man balaa kenn di maam bànneexu dana maam ñaq maa la ko wax maam bànneexu maam ñaq ko jiitu maam lim daj ba dégg maam ah ma lay li nga daj ba dégg maam man mii di wax li ma daj ba dégg maam xam naa dinañ ne kii am dégg naa maam nag ah man li ma daj ba dégg maam alaaji ma lay taal daj ko ba dégg maam alaaji Badara daj ko ba dégg maam alaaji ko ba maam billaahi boo déggee maam la nga daj waxuma la dara sax la nga daj ci say soxna rek ba dégg maam hmm. wax nañ la ŋoŋeet nañ la ciipatu nañ la toroxal nañ la nooy def lu dul muñ ah Ibra Ibra mii dégg na maam nooy def ba doo muñ kon maam ku ko dégg rek daj nga lu ne moo tax nag neex-neex yii balaa ma koy tudd damay tudd yi nga xam ne moo ko jiitu yii Seydina Cheikh wax ne moom la dikk ñi dul taalibe sax xamoo ñoo ñu ëpp sens ndax ñoo ñu yomb na soppal rek waaw Ibra gi yéegi nii du taalibe maam maam borom Tuubaa la 2003 ba léegi ñu ngi ànd mosuñu xuloo mosuñu xeex mosul tardé mu ndaw mii tiijaan foo ko joxee rendez-vous mu tardé te taalibi tiijaan la mu ndaw moom moom heure lay bañ moom moom moom moo du après heure te Ibra ngi nii boo ko nee midi midi heure boo ko wax mu ñëw 2003 ba léegi ñu ngi ànd maag moom kii lu ma am yow man am du ci mos bu bëggee dana ca mos bu bañee dina ci mos ndax Seydina Cheikh a ko mosal ba pare te muy taalibe maam borom Tuuba kon moom moom am na sax ëpp sopp rek la Seydina Cheikh wa ne ki ma sopp rek man Seydina Cheikh quatorze yii ma lim bu soppatoon Seydina Cheikh dina ànd ak man mais bu ma soppaloon sëñ Tuuba du ma ko jël jeex na du waaw ah, bu wér kon fii lay nekk naan ku du tijaan du la dawal du ma dawalal ni ma waxee woon keroog ku du tiijaan du ma pikiir léegi nga dee docteur Ousmane Dieng dafa daj hôpitaux yëpp docteur Yacoba Faye dafa daj hôpitaux yëpp docteur Mor Dieng dafa daj hôpitaux yëpp demal roi Baudouin bii ne docteur Dieng la wala docteur Yacoba laay xaar pour mu pikiir ba léegi nga dee boo gisee Jean Pierre mu pikiir la jëlal loolu bokkul ci istimdaad bokkul ci istimdaad moo tax fukk ak ñeent quatorze yi jiitu ñoo ñoo ëpp sax sens ndax ñoom dara warul leen rek lu dul sopp ak bëgg soppal Seydina Cheikh wala nga bëgg taalibe Tijaan ñeex na yooyu mooy fukk ak ñeent yu njëkk yi waaye yii nag Seydina Cheikh dafa ne ki jàpp sama tarixa ko moom kan mooy ki jàpp tarixa waaw kañ kan mooy ki jàpp tarixa mooy ki dem ci muqaddam bu am ndigal mu jox ko léegi nag gars yi bëgg nañ daraja de man fan yi yëpp am na ñu may interpellé ñii ñu nga be Canada ñii ñu nga be fële naan ma man de ki ma mayoon tarixa bi joxuma sax charte daf ma ne tàllalal rek ma waxuma ci demal ci kenn waxu te joxuma charte ma ne ko amoo lu wér ndax Seydina Cheikh moo wax ne fokk nga jox ko chart yi wala nga jox ko ba noppi yebal ko ci ku ko jox charte yi su amul mu ne yow mi ko may génn nga ci tarixa bi moom nag amul dara faf loolu lu ko fi jar lu ko fi jar soo amoon tarixa bi sax maara day génn nga ci boo amul ndigal joxe tarixa bi te joxe ko ka nga jox amul dara waaye yow génn nga ci tarixa bi maara day loolu dara jaru ko bëgg daraja jar na loolu jaru ko moo tax Seydina Cheikh dafa ne fukk yi ak ñeent mu di quatorze yi may waaj a tudd nee na ki jàpp sama tariqa moo ko moom kan mooy nag ki jàpp tariqam mooy kii may wax mooy ki dem ba bëgg tariqa bi yemu ca mu ne dama bëgg a jël moo tax Seydina Cheikh ne bul propagande kenn ci sama tariqa bi nee koo ci propagande ba mu dugg génnaat mu ne yaag moom yow mi ko propagande noonu ak moom yéenay ànd génn mu ne bu ci bàyyi propagande doom bu ci jëkkër propagande jabar bu ci xarit propagande xarit ñu ne ko nooy def mu ne del jëfee rek mook parfum bu neex a yem boo ko yàggee laal koo romb mu ne la saa waay sa parfum bi neex na de foo ko jëndee bu yàggee mu laaj la bitig ba nga dem jëndi wala mu ne la mosal ma ci boo amee ndigal mooy mosal ma ci boo amul ndigal mooy bitig ba mu xaddam ba ba am ndigal mu ne waaye del jëfee rek bul wax mukk sa doom kaay jël Seydina Cheikh nanguwu ko de xanaa yow doo jël tarixa bi borom tarixa bi nanguwu ko jàppal tarixa bi waxuma la ak na nga day di ca yegg ak moom boo jàppul tarixa bi ma bàyyi la foo ko teg tegoo ko fen ci bakkan rek la tegu Seydina Cheikh nee na donte yaa ko jur bu ko ci xecc bàyyi ko yow mi ko jur del jëfe rek del jëfe rek bu yàggee mu ne paa bii daal lim nekk xemem naa ko ndax nee na paa foo jëlee affaire bi nga ne paa am naa ci ndigal di mu ne la doyoo ma xam nga tarixa bi loolu ko tax a neex paa ku la wax doy nga ma <laughs> ah bu ko defee da ko man de sama sëriñ Cheikh Ibrahima Sall la mu ne ah kooku dégg naa ko neex na ma yóbbu ma ca mu jàpp ci loxoom yóbbu ci Cheikh Ibrahima Sall moo ko doy ndënkaane ka la doy waaye kay ma dencal la day jooy ah, <laughs> Alaaji Badara kay ma dencal la sa un million bi ah boo ma mënee sori sori ma de nekkatul ci kese kese mukk kay ma dencal la bay jooy jaru ko ndënkaane ka la doy ah moo tax Serigne Cheikh ne tey ma doy la <laughs> mu ne moo gën a yaakaaru tey ma doy la mu ne coow yi bari rek doo doy kenn mu ne waaye yaa ma doy nag loo ci mën mënoo ci dara moo tax Seydina Cheikh ni lii boo gisee ma di ko préciser dafa bari tey ci réew mi ñiy joxe tarixa bi te amuñu ijaaza ñiy joxe tarixa bi te amuñu ndigalal joxe tarixa bi ku ko ci def ka nga jox moom amul dara waaye yow mi ko joxe génn nga ci tarixa bi looloo ci gën a bon ki nga jox nag muy sàq mi rek yaakaar ne ndeysaan mu ngi mu ngi ci dara fekk nekkul ci tus yow it nag nga foog ne yaa fa ne fekk génn nga bu yàgg wala iyaazu billaah loolu lu ko jar bëgg daraja dafa jar lool jaru ko moo tax Seydina Cheikh ne sama tarixa ki ko jàpp moom laa dig quatorze yii ñu ne kan moo ko jàpp mu ne ki toog ba bëgg dem ca muqaddam bu ko doy bu ñuy wax Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabbaax wala Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Baay wala sëriñ Babacar si wala sëriñ Mor jóob walla Thierno Bachirou Tall wala walla walla wala ñi ni mel nga waaxu ci moom ne ko sëriñ Cheikh sëriñ Abdoul Amine sëriñ Maodo si sëriñ Babacar si Abdoul Aziz yaa ma doy yow laa bëgg nga jox ma tariqa bi mu jox la charte yi ne la nangu nga nga ne waaw mooy boo jàppee tariqa bi doo ko bàyyi bi ba ngay dee nga ne waaw nangu naa bu ne incha allahu sax Seydina Cheikh dafa ne bu ko jox ndax incha allahu xaju fa waaw rek wala déet Seydina Cheikh bu ne ne dafa ne yëpp waaw jox ko te xiddi jóg sama digganteek moom maa yor tarbiyaam su ne déet ah affaire bi kat bëgg naa ko de waaye xaw ma woon nii la jafee de Seydina Cheikh ne bul bul convaincre bul jéem a convaincre bàyyil mu dem dana nekk jullit bu wér waaye du nekk sama taalibe xam nga lu tax nit mën na bëgg tariixa bi te xamut charte yi nga jox ko ko mu xam charte yi ne su ma yëgoon fekk passé na moo tax da koy gaaral charte yi ba jiitu mooy boo ko jàppee doo ko bàyyi ba ba ngay dee ndax ku ko bàyyi alku nangu nga mu ne waaw soo ko jàppee doo ko booleeg beneen tariixa nanguwul kimile mu ne waaw waaw de soo ko jàppee doo jëfandikoo póon moo xam bépp xeetu póon la doo ko jëfandikoo nangu nga mu ne waaw soo ko jàppee doo ziyaara benn wali bu dund wala bu dee bu bokkul ci tarixa bi nangu nga nga ne waaw soo ko jàppee waxtu yi juróom da nga koy julli ci seen waxtu ca mbooloom jàkka ja yow góor soo amul ngant soo amee ngant nga def ci sa fa fa la fa la julli fekk bu dee jigéen ci biir këram nangu nga nga ne waaw soo ko jàppee da ngay laazim suba laazim ngoon wadifa suba wadifa ngoon xadaratul juma ca mbooloom jàkka ja fekk amoo ngant yow góor nga ne waaw bu dee yow jigéen ci sa biir kër nga ne waaw soo jàppee tariqa bi mu ne waaw daf ci am na yoo xam ne nag surutu sixa la am yoo xam ne surutu kamal la yi nga xam ne nag mooy dog moom laa fi tuddoon mooy ñett yooyu yi ci des yëpp nag Cheikh Cheikh nee na soo ko wéralee nekk tiijaan piir soo ko wéralul sax tiijaan des na soo ko jàppee bu dee mën nga jàng alxuraan bër bu set nga jàng ñaari hisib am na ko ma interpellé ne ma bu fekkee dafa dem ci kaamil ñu jox ko jukki mu jàng ñaari hisib wala lu ko ëpp yéene ko hisib bi tarixam ma ne ko wérul ñaari la nga jàng ca eh, xew ma xew maa tax borom tarixa bi ñaari xisib la la wax par bés te ñaari xisib yi dafa bëgg nga toppante ko tàmbalee ca baqara di wàcc si naa si bu weer wi de kaamil bi jeex muy juróom benn fukki xisib est-ce que da ngay dem ca xew wa naan jox leen ma bu ma tollool lu noonu la nga jàng ca xew ma xew ma la waaye li nga jàng ci ci euh, ñaari xisbu tarixa bi moom dañ bëgg nga toftalante ko su fekkee mënoo baqara benaasi te mën am mayeta bi suuf am mayata ak suuf ngay jàng bër bu seen nga jël ci ñaari hijib soo ko mënut boobu maa ko ci boole te xiyaas nangu na ko mooy ku mënta jàng mën a déglu te léegi lay amul ku ne am na portable portable bu ne am na son yaa xam son yu nga ca def wala son wu loo ca mën a def nga def ca son wu alxuraan di déglu boobu xiyaas nangu na ko ku mënul jàng mën a déglu te kiy jàng alquran ak kiy déglu alquran ñoo yem tiyaabo loolu la yonent bi wax salaay sallam kon nag yow mi ne mënumaa jàng amatoo ngant jëlal sa portable nga téléchargé ci alquran di déglu alquran ba ba ngay mën a jàng te góorlu nag di jéem a jàng waaw ñaari hizib par bés kii soofantalal na alquran xoolal chartu tariqa bi kii soofantal na daraay lislaam di julli waxtu yu juróom ca jàkka ja yow góor yow jigéen ci sa biir kër kii soofantalal na diine dara loolu di fa suba ngoon ca jàkka ja kii soofantalal na diine ñépp julli ñibbi yow nga des fa di tudd yàlla ah kooku soofantal na dara yàlla déedéet moo tax mu ne la waxtu yu juróom yëpp da koy jullee ci jàkka ja ca mbooloom jàkka ja fekk amoo ngant boo amee ngant fu mu la fekk nga def ko fa mu ne la boo mënee jàngal alxuraan bër bu set nga jàng ñaari hizib nga ne waaw soo ko mënul del déglu alxuraan mu ne boo jàppee tarixa bii wëli yàlla yëpp doo ci doo ci ŋàññi kenn ñëpp danga leen di fonk te ormal leen kii saagaloo na kenn waliyu mu ne mu tarixam bi soo ko jàppee muqaddam yi ci tarixa bi yëpp da nga leen di yemale kii won na la ne kii ñas la kii ku kii eh, eh, ni ñu koy waxeeti bala Medina Gunaas la kii baro la kii bëggi kii kër si la mu ne muqaddam yëpp da leen di yemale ñu ne ko ak ban mu ne soo jàppee sama tariixa jullit ñëpp da leen di mbokkoo seen ay di sa ay seen jàmm di sa jàmm kii ŋàññiloo na benn jullit ñu ne ko ak ban mu ne sama tariixa bii soo ko jàppee da ngay tënku ci sharia ak sunna xam nga lu tax lii ñuy waaj a wax a tax mu ne da ngay ko ci charia ak sunna doo topp neex-neexu tarixa bi tarixa bi digle rek ba booyal sa bakkan lu la neex def déedéet li yàlla tere da koy ba li yonent bi indi nga topp ci mooy charia ak sunna nga ne waaw nga door a tàllal ñu jox la kooku ñu jox nag ba mu jàpp Seydina Cheikh nag nee na ndokk sax woykat newu fi sëñ kër si wax ko fa baydatuhu tubaawu axi bi alfin sëriñ maam Ousmane si bu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz si nee na maa ko laaj sama baay mu ngi sowandu mu ne ma Ousmane xam nga lan la mu ne ah, mu ngi mel ni ba nga amee yéene ca guddi ne bu ma xëyee danaa dem ñaani tariqa bi ci ko ñuy wax alaaji Abdul Aziz Dabbaax yéene boobu nga fanaanoo ci nga wecc junni xutbu yu bokkul ci tarixa bi junni ibnul arabil haatimi ñeme naa ko tudd xutbu la maanaam nga am mille ci moom fi nga yéene te jàppagoo nga wecc mille ibnul arabil haatimi ci nga weccee mille abdul aziz dabaax borom ibris biñ tuddee alaa jabdu bi kaana min al aqtab te ku yër ibris di nga xam ne kaana minal aqtab wecc ga ci moom junni fi nga yéenee te ñaana woo sëñ Babacar si ne booba ngay nen fi nga yéene ca ñaanagoo sëriñ Babacar si nee na Seyda Aboubacar si nee na foofa ngay nen mu ne waaw bu ñaanee ba noppi nag ku xamati xayma cuub ba sëñ Babacar si ne waaye waaye waaye bu ñaanee ba noppi xay xaymay cuuj bi ku ko xamati kenn xamu ko fàtte woon naa ne mu ngi fii di jël ko toogal na خلفني فندعو الله مولانا مماتا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما عرجوا ملامه خلفني مريد القرم شيقي لا يدام مريد القرم شيقي لا يدام ينال به بقاية ما يرام xalifa ne ka shamsul fi samaa'i ala zawalil ka shamsul fi samaa'i ala zawalil yara allah daaba wala la qimaamo xalifa ne muridul qar mi shayqi la yudaamu ينال بي بقاية ما يرام خلفني كشمس في سماء على زوال الذهب ولا الخمام man dama koy fàtte sax ci woykat yi ma ne woykat ndokk newu fi sax ndeke mu ngi fàtte woon naa ko sayid tabaarakallaahu su ko defee sëñ Babacar Si ne xaymaab cuuj bi ku ko xam nen bi rek nen bi moo wecc junni aqtaab yu bokkul ci tariqa bi mille mille aqtaab yu bokkul ci tariqa bi mille xutb yu bokkul ci tariqa bi mu ne waaw kon cuuj ba nag xaymaab cuuj bi ku ko xam waaw bu demee ba nekk seq nag wala tëng hmm? bu dee góor mu dem ba nekk seq wala mu nekk tëng jigéen ko xam xayma ba yàlla rek a ko xam waaw alaaji Abdou Aziz mii bu nag moo wax loolu doomam maam Ousmane ne ko fa nga amee yéene bi ne de bu ma xëyee ëllëg dem ci ko ñuy wax Cheikh Alhaaj Abdou Aziz mu jox ma tariqa bi mu ne foofa nga weccee junniy xutbu yu bokkul ci tariqa bi boo ñaanee ba noppee kenn xamatul sa xayma waaye ki ñaan tey jëfee nag am na ñu ñaan tey aj de man de jànguma ko fenn ci tariqa bi am na ñuy aj de te nañ ma wax fuñ ko aj nañ ma wax nag fuñ ko aj ñaan ba noppi ne dama ko aj wérul fenn ci tariqa bi xam nga fu mu wéree wax day am daaneel xam nga fu mu wéree la daloon Cheikhul Xaaji Malik ak Seydi Jamil la daroon góor gi am góor gi naka jubal Aliyun Jóob jubal ak Sëriñ Moor Jóob la dal Cheikh fuuti Fuutiyu ak góor gi Siise bi nekkoon fii ci campement Ngeexoox ma dem fa daan ko ziyaare ji yaakaar naa mos naa fa ànd ak Mansour mi góor gi Siise fii la nekkoon ci campement Ngeexoox daaw jéeg la gaañu Cheikh El Hadj moo ko feeñu ci biiri ndeyam may ko wérut mu dem bi am fukki at ak ñeent Cheikh Omar ñëw ne ko man nga xàmmee nga ma mu ne ko waaw mu ne ko maa la feeñu woon ci sa biiru ndey yëkkatil mu yëkkati mu ne ko lëgët bi ba sa waay yaay di waaj daanu ca xeer wa mu ne ne Cheikh fuuti yu ma aw ko mooy mooy lëgët bii mu ne ko waaw mu ne ko tàllalal ma jox la tariqa góor gi siisee fii la nekkoon campement ngeexoo man fu ne dem naa fa bi mu gaañoog léegi safe trois ans rek yàggul dara ay njabootam ak may dégg waaw ah, man fu ne dem naa fa de <laughs> dangeen yaakaar ne dama toog nii rek di naan café kon mu yomb di kon mu yomb di day yomb lool nit yi ko yombewul noonu de fu ne dem naa fa góor gi siisee fii la ne woon campement ngeexoo te boo demoon fekk ko ci ëtt ba mu toog doo yaakaar ne si lii fanaan na ci bopp bi mu ne ma doom bés ñuy waxtaan mu ne ma doom ba léegi bu ma ko nammee damay génn ci gannaaw dëkk bi rek su ma génnee rek mu ñëw ma waxtaan ak moom ñibbisi waat waaw ku baax góor gi fii ci campement Ngeexoox mu ne ma doom ba léegi bu ma ko nammee rek damay génn nii rek di doxantu ci bi fekk moom laa nam su ma génnee tuuti rek mu ñëw ñu waxtaan maag moom mu dem ma dem Cheikh Umar lay wax ni hmm? waaw Serigne Aline jubal moo jur Serigne Mor Diop ci Parcelles Assainies doomam bu judd mu may la tariqa bi boo màggee yeeslu moo tax sëñ moor bi mu màggee mu dem ci sëñ Babacar si mu yeesal ko bi sëñ Babacar si génnee àddina mu dem ci Seydi Jamil mu yeesal ko sëriñ Mor Diop baayam sëriñ Aline Diop jubal doomam bu juddu mu jox la tarixa bi amoon na martaba bi bu dul façon boobu yëguma fu ponkalum jëmm mu am sikkim walla musóoru muuru ba jekk ñëw ñaan tarixa bi ne dama koo aj foo ko aj tarixa bi nanguwul aj dooy ñaan rek jëfe boo ko ñaanee ci suba laazimu ngoon ak wasifa ngoon war na la bu dee ci ngoon bu suba bi war na la bu dee bu ngoon bi sax te jant bi langagut bër setagut defal bu ngoon bi dinaa ci ñëw léegi naka lañ koy defee yi balaa ma leen di tuddal neex-neex yi di ngeen xam ah dafa yombee noonu mel ni muuraake muñ dëbb rek indi jox la ngay maq du noonu la yombe ah say baqataay ne bàcc ci bitti nga door a mosi lu neex li kaani gi ngay njëkk a ngëriñ ba pare ah banaana yeeg pom yi door a ñëw na ok Seydina Cheikh nee na ki jàpp sama tarixa ci charte yii ñu ko jox muy vingt-trois charte la mooy yi ma tudd nii su manqué it la ca des bariwul moo ñëw ci rimaax bu Cheikh Alhaaj Omar vingt-trois moo ñëw ci faakihatu tulaab bu Seydul Haaj Malik moo ñëw ci téere Baay Ñas moo ñëw ci munyatul murid mboolem téere tariqa bi yëpp amuñ ci benn wuute vingt trois charte la ñoo bokk yem ko Seydina Cheikh nag ne ki jàpp ba noppi nag waxoon naa ko keroog dinaa ko waxaat amul benn awraat bu gën a rëy ci àddina awraatu tariqa bi gannaaw bi nga jàppee tarixa bi fokk yow tiijaan bi nga gëm ko wa illaa doo jëriñu ci tariqa bi ña ciy jëriñu moom doo ci bokk mën nga nekk nag ci biir ñu di la pédale rek waaye doo ci jëriñu de fokk nga gëm ne tur wiñ la mën a jox ci kaw suuf ismulaayil adamil kabir a ko féete suuf boo xamoon ismulaayil ka adamil kabir ñu xamal la ko it bi ci biir tariqa bi nga di ko wér daale bokkul ak biñ la jox ndax bële gémmiñ gi mu génnee ak gémmiñ gi la jox du benn aha lettre bu ma président makki sàll bindal pour ñu bàyyi ma fu may dem ci Sénégal ak Europe xam nga lettre ba valable na c'est le protégé du président de la République Chérif Ibrahima Aïdara missionnaire du président de la République Chérif Ibrahima Aïdara bu leen ko téyee fenn bàyyi leen ko mu dem cachet président sam numéro téléphone am ci biir fu may ko tàllal ñu bàyyi ma ma dem intérieur rek am na carte bu ñu lay jox foo ko tàllal policier bu la gis tóoj dëgg la wala du dëgg waaw bu ma président Macky bosam boobu baaxul valable waaw bu ma trompe bindalee nag te président président rek la di <laughs> président Trump président Macky Sall président Baro est-ce que ñoo toll moo tax gémmiñ gi la koy jox bu dul gémmiñu Cheikhu Tidiane yi moo moo faw xa gémmiñ ñëpp gémmiñu Cheikhu Tidiane yi moo tax foo mën a jëlee ismulaay laazamil kabir bi ci tariixa bee ko ëpp doole ndax gémmiñ gam jegee la ak ndigal lam jógee ndigalu rasulullahi mubaasaratan cheikh sidi ahmad a tijaani te ismulaay laazamil kabir boobu seydina cheikh nee na mu ci sama biir awraatu tariixa bi te du la gaañ dañ la koy jox nga di ko goûter par ndànk-ndànk mooy li ma la waxoon léegi ci portable boo koy chargé mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal mosal noonu lay chargé di mañax mañax jooju mooy mosal mosal mosal mosal regg naa mooy bu feesee mu ne la chargé débranchez votre chargeur leer na ismu bu mën a doon ismu laay laazamil kabir moo ko féetee kaw su la ko keneen joxoon wér na de waaye bi ci biir tarixa bee ko ëpp doole leer na ndax gémmiñ ngam jógee tax ak ka ko ci dugal gémmiñu rasulullah am na gémmiñ gu ñu gën toll te moo ko ci dugal moo tax fokk nga gëm ne awraatu tarixa bi moo gën ci awraat yépp door cee jëriñu ak tur wuñ la mën a jox ci àddina nga ne awraat laazim bi téeméeri istighfar téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illallah moo ko ëpp doole te xam nga fu mu tënku radiyallahu anhum wa radu anhum zalika liman xashiya rabba foofu la tënku radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbahu baatu radiya boo ko déchiffré moo lay jox trois cents mooy awraatu tarixa bi booy sikkar rek yàlla gërëm la nga gërëm yàlla mu ne kenn mënu koo am nag lu dut li man ñeel ka nga xam ne xasiya moo ragal rabbahu borom radiyallahu anhum allaaxira lay amee de waaye taalibi cheikh bi fii la koy incarné door a dem yàlla dalay gërëm fii ba nga dégg ko xam ko nga taxaw àllaaxira nag dina ñëw léegi ci liggéey mu boole la ci jaamam yi mu gërëm nag seppi la ne la kaay yow ci taalibe cheikh yi nga bokkoon taxawal fii baatu rida radia fa la tarixa bi génnee mooy trois cent muy laazim wasifa ak xadara muy téeméeri istixfaar téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illa allah laazim wasifa xadara téeméeri istixfaar téeméeri laa ilaaha illallaah téeméeri salaatu ala nabi xaqan mooy tarixa bi booy jàpp rek yàlla gërëm na la te kat xanaa xamoo ne wa ridwanullahi akbar alxuraan laay wax de yàlla ne wa ridwanullahi giñ naa ne sama ngërmaande man yàlla akbar moo gën a màgg ci ngërma ci lu loo ma mën a defal ak àjjana ci boppam xam nga noo koy dégg toujours ma joxe ci sama xarit la ba Farba Senghor ba Ngom du barki dem président recevoir na ko ci projet ba mu indi iñaam xaw ma iñaam fële mu nekk maire moom moom tëju nañ lu yàgg wax président félicité ko remercier ko loolaa ko gënal titre bi mu am nga toog rek yàlla seppi la ci jaama wi ne la ah Sidi Mbaye gërëm naa la mu ngi mel ni nga jot kut fiilu Ibra Gueye mii toog rek téléphone am sonné kar salaamaaleykum xam nga moom noonu lay nuyoo salaamaaleykum ne ko salaam kooku du Ibra Gueye yëpp mu ne ko mu mu ne ko ma ne sëñ Mountakha Mbacké nooy def sànni téléphone bi lay njëkk a def yuuxu daanu xaal <laughs> dëgg la wala du dëgg ah dëgg la wala du dëgg wala atumaan njool ma ne téléphone am ne kar salaamaaleykum xam nga moom ñoo représenté daayira Serigne Mbaye Mansour fii moo tax moom Mbaye Dioum moo tax ma jël ko salaamaaleykum moom xam nga noonu lay nuyoo moom it aleykum salaam kooku kan la atumaan waaw man la atumaan kooku man la Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane i loolu la ci njëkk a teg xam nga taalibe Cheikh moom moom i la gën tam i kooku di Serigne bi la dal di yegg suuf ah waaw sëriñ bi bismillah mu ne ah déedéet doyewu ma la dara atumaan dama yëg sa taxawaay ci eh, daayira bi rek jërëjëf atumaan yal na la yàlla fay yal na la yàlla barkeel yal na la yàlla barkeelal jërëjëf loolu rek laa la doon doye loolu atumaan dana ko waxtaan waxtaanee fukki weer moo ko gën lool mu jox ko un million Ibra Gueye it loolu looloo ko gënal fuuf mu jox ko fukki million ndax loolu dootul deñ te fukki million yi day jeex moo tax wa ridwanullahi akbar yàlla ne ma gërëm la man yàlla moo gën a rëy àjjana ak li ci biiram moo tax walla day naa mazid mu ne su ma la gërëmee ba noppi dinaa la dolli lu bët du tege mësul tege xel ma su ko xalaat xol ma su koo xalam foofu la tarixa bi dugg de hmm. bul bul dem waaw arrahmani salli abidika al annani muhayminul azizu ya jabbaaru salli ala al aadi al wara qaaru salli ala al faatihi mimma uxliqa Seex Siraaji Maalik nee na imaam Sariif nee na matinu yàllaahu birrahmaani salli ala abdi bi kal adnaani aziisu yaa jabbaaru salli ala adil wara qaaro salli ala alfaatihi mimma uxliqa wa man bil xatbu lima qad sabaqa waaye xoolal tariqa bi gox boo mën a dem daa fa fekk ndongoom ku mat sëkk sëriñu gaañu na teeg waa xoola tariqa bi li muy rëy rëy yëpp waa xoola cheikh mouhamadul xaali yi billaay ki ndongol cheikh na tijaani la waaye xoola tariqa bi li rëy rëy yëpp waaye mi boo ko tee su du tee nga di njool ëpp du tee nga di ñay yàlla ay mayam dafa yaa may keneen du wàññi soyoy cheikh na tijaan sërif nag jox na koy ngëneel ba mu doy yéemuwul moo làqulu rëy cheikh tijaan sërif ak jubbum dafa min alal ba buuf te ba di wal koo fi naw ci Cheikh Tidiane lu du duy loosu gaa yi ñëpp la Cheikh Tidiane Chérif teg dëggum ku bañ dina koy moo tax xoolal Cheikh Siraaji Maalik nee na salaatu faatee ngoog salli alal di wa qahaaro tabaarakallahu su ko defee jërëjëf Saïd su ko defee kon tariqa baa ki jàpp nag la Seydina Cheikh wax te du bàyyi ndax bu bàyyee la ko cay fekk wax nañ leen ko nga gëmit ne yow mii góor boo bëggee jëriñu ci tarixa bi fi mag ñi yeggoon nga yegg fa bul faat waxtu yi juróom ca jàkka ja ci la bokk de ci surutu kamal yi la bokk yi tax nga yegg fa nga war a yegg ci tarixa bi waxtu yi juróom ca jàkk ja fa ca mbooloo ma waaw góor gi ma yoro sàll nee na sëñ Haadi Touré nee na ans mu ne juróom-ñeenti at neuf ans ànd naa ko la Xaaji Malick mu ne masuma ko gis mu faat waxtu ca jàkka ja mu ne benn timis la ñuy dugg ci si yegsi ci jàkka ji ñuy sëlmal mu ne Maodo di ko métitlu mu ne te booba xam nga lu tax dañ doon yër ay masala ci sharaa yi ba dégg jàkka ja di nodd Maodo ne loolu lan la nodd ñu ne waaw mu ne ah tey de def nañ luñ mos a def dëpp leen saraa yi teñ dem neena waaye daawul waaxoo nag nam daan ndax dañuy tere kuy dem jàkka ja sax di daw wala di waaxu waaxu wu dëgër yonent bi da koy tere nee na muy dox nam doon doxee rek di dem ba yegg fekk ñuy sëlma mu ne ah, tey di def nañ luñ def waaye ku ne na jullil boppam ñu julli ba sëlmal mu ne keroog la mos a gis Maodo tardé waxtu juróom ci jàkka Maodo laa wax de Seydul Xaaji Malik laa wax waaw kon yow mi dut Maodo nag gars yi nag léegi yooyu boole tiñ ko ci priorité yi mokk waxee rek ma kenn nag boole ko ci priorité yi massa nag nga gis kilifa wala muqaddam buy toog ci malaan woo def c'est très difficile mel ni bokkuñ ci ñoom te wax naa fi keroog ne képp ku ñuy fal ci tariqa bi bésu àjjuma lañ lay fal képp kuñ ci folli wal iyaasu billahi bési àjjuma lañ lay fal ci malaan mi lañ lay falee ci malaan mi lañ lay folle njaaye jóob sama goro la mu ngi fii Sacré Cœur du tudd tur nee na baayam baayam muqaddam la ci tarixa bi ca Louga ak maamam nee dañ toog di mës di wasifa mu ne mu gis Cheikh Seydi Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi ñëw rek yor yet kum joxoñ rek Seydi Hadji Malick puus nee na kum joxoñ rek Seydi Hadji Malick puus mu ne mu nettali ko yëf yi jaaxal leen mu ne ñu mu tuddoon ñëpp balaa ñoo dee génn nañ ci tarixa bi njëkk mooy ñi na Cheikh doon joxoñ Maodo di puus mooy nañ génn tarixa bi wal iyaadu billah moo ma ko nettali mu ngi fii di ma dégg Sacré Cœur yal na fi yàgg te wér ah te jooñu jéppi gu leen Seydina Cheikh jéppi maa ngi koy wax di keroog oustaz Alioune Badara Ndiaye Atijani tur bi laa fàtte woon mooy góor gi ci ci tëngéej qaadi Alioune Dia Maodo joxu ko tarixa bi mais dafa ñëw Maodo jommal ko ci xam-xam jommal ko ci wilaya mu rangé wu ci gannaaw Maodo bi Seydi Aboubacar si nekkee Tëngéej moom la Maodo doon wax ne bul ñëw seet si ma mukk Babacar ma woolu la lu dul da jaar ci Qaadi Aline ja mu jàngal la Fatiha ak salaatul fatihi ndax yàlla nangu na Fatihaam ak salaatul fatihi mu ne sëñ mi Seydi Hadji teg ci ne ko Babacar xanaa xamoo ne Qaadi Aline ja daf daan gis yonent bi yàqazatan ci malaan mi maaraay kanamam gisatu ko mu ne sëñ Babacar si ne ko ah papa lu neexee noonu noo koy xañee nit mu ne ko dama doon bañ mu yem ca te am na lu ko ëpp ma ne se ma ne góor gi ma ma ne Alioune Badara Ndiaye atijaan yi ma ne ko gis nga yàlla dafa am jalaaliya ak jamaaliya Cheikh Seydi Ahmada Tidiane yi ba juddoo rek la commencé di gis maamam moo tax ñu naan dafa toog bi am 40 ans door a gis yonent bi du dëgg c'est faux maamam bi jur ndeyam muxtaar moo daan muur kanamam ñu laaj ko lu tax mu ne sama sët bi waajo juddu moom laa koy protéger ndax sama xar kanam ku ko gis dee ndax leer gi ci nekk te boobu leeru Cheikh Seydi Ahmada Tidiane la Seydina Cheikh gis bi mu daan gis maamam min qabl lu jiitu ñu koy jox tarixa tijaan kooku la ñuy wax visite visite bokkul ak visite officielle visite officielle président day yëgal Macron ne ko maa ngi ñëw Macron jël ay disposition ci accueil ba ci aéroport ci renseignements généraux yi yëg ne le président sénégalais mu ngi fiy waaj a ñëw kon fexe leen ba mu am sécurité nañ ko jëlee aéroport bu ñëwee mu taxaw ci kanamu Élysée Élysée Élysée xaar ko foofu am na sew-sew ku fay liggéeyee moo ma ko wax ci biir palais Élysée man dama garaaw de am naa xarit buy liggéeyee ci biir palais Élysée billahi wal kitaabi moo ma ko nettali ci biir Macron fa lay liggéeyee sama xarit la mu ne ma seetlu li ma lay wax mu ne ma koo gis Macron taxaw ci kaw pied bi mujj ci bunt bi xam nga foofu pied bi mujj ci bunt bi mu ne bu fa taxawee ba président boobu yegg si fullaalu ko mooy président boobu moo ko soxla mu ne ma waaye bu wàccee ba ci oto bi kooku beneen affaire la mu ne ma moom moo ko soxla ak yeneen yum ma ci wax moo tax toujours buy accueillir président yi damay xool yéen it dee leen xool àddina jàng la visite officielle bu président di dem visite officielle président ba da koy yëg mu yëgal ko ko ñu yëgal ko staff bi yëgal ko ñëpp accueil ba ci aéroport lay commencé da ba mu yegg si pale waaye visite privée président ba mën na ko bañ a yëg ndax privé la buy dem day dem vacances wala mu dem am affaire boppam yu mu fay dox loolu président sax mën na ko bañ a yëg gis bi gis yonent Seydina Cheikh daan gis yonent bi sallallahu lu jiitu muy am tarixa tijaan kooku visite privée la entre moom ak yonent bi foofu jalaal jalaaliya yonent bi feeñu fa jamaaliyaam la ko doon feeñoo moo tax wali yi booy seeti fekk ko mu nekk ci xabdu ak bast foofu la dugg boo ko fekkee ci xabd boo ñëwee tabarkal tabarkal du la bëgg a xool sax Cheikh Al Hadj bu ca masaan boo ñëwee nuyu ko ba la nee marhaban bu fa toog salaamaaleykum mu ne marhaban marhaban marhaban demal xamal ne mu ci jalaaliye bi boo ñëwee assalaamu waaleykum salaam kooku diw bismillah dana neex Cerno Basiiru mii boo ko nuyu mu ne um, um, boo yeboo dem um umam um, jooju boo yeboo nga sori waaw loolu la ñuy wax xabdu ak bast mooy jalaaliya ak jamaaliya loolu la yàlla di feeñoo ko am soxna futteeku soxna am futteeku jala jamaaliya lay feeñoo foofu moom yàlla moo tax nisaaukum xarsun lakum fa'tu xarsakum anni shi'tum wa qaddimu li anfusikum waalamu annakum mulaaquuhu lu tax wa bashiril muminina foofu jamaaliya yàlla du ñëw jalaali jalaaliya yàlla du ñëw jamaaliya am lay ñëwee noonu la yonent bi amee jamaaliya amee ko jalaaliya jëlee ko ci yàlla noonu la leer yi amee nuuru jamaaliya ak nuuru jalaaliya bokkuñu te mënu xàmmee leen yombut bi mu amee nag ñeent fukki at bay jot tariqa bi ci la yonant bi ñëwee ci moom nag jalaaliyaam mu mat sëkk comme ba yónnant bi sallallahu alayhi amee quarante ans jibril di ñëw ci moom te ba mu amagul quarante ans yàlla daf doon wax ak moom lu ko waxoon demal xaaru xiraq lu ko waxoon dee fa naafila lu ko waxoon dee fa or te jibril ñëwagul wa naka noonu Seydina Cheikh moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu moog maamam mosuñu tàqalikoo seconde ba fii ma toog di wax ak yow te dinaa ci ñëw moo ko indil nanguwul ñu suulaale ko kenn ci fañ ko denc mooy samedi bii di ñëw lu tax te yonent bi am Seydina Aboubacar ci wetam am Seydina Omar ci wetam di xaar di xaar di xaar yonent yàlla Isa ci wetam tax Seydina Cheikh radiallahu taala anhu yii may tudd si nag pour nga am ko pour nga am ko fokk nga respecter tariqa bi yow mi jàpp tariqa bi ba noppi pour nga am yii may tudd si fokk nga respecte tariqa bi ba noppi jox ko gëdd bi mu la laaj nga door koo am yow yow loolooy sa charte yow yow mi may déglu tey yokkas ndeku di xaar ma wax la quatorze yii nga xam ne moom la la moom la ñu Seydina Cheikh dikk fokk nga nekk ci lim la sant ba pare mooy dee laazim ci waxtu del wasifa ci waxtu ca mbooloo ma boo amul ngant ngant na ngant la tudd waxtu yi juróom ca jàkka ja boo amul ngant xadara wasifa ca mbooloo ma mbooloom jàkka ja boo amul ngant boo amee ngant moo tax ma ne taaliba tiijaan bu ne war na am un mètre wala deux mètres maximum malaan mu lem ko def ko ci mbuus teg ko këram su amee gan bi tàkkusaan jot ñu julli tàkkusaan laazim niñ lal wasifa donte yéen ñaar la mën ngeen wasifa ci sharia ñett mbooloo ñetti nit la tàmbale waaye ci xaqiqa mbooloo ñaari nit la tàmbali ndax ci charia li ñuy gis ci bite tax duñ nangu lu dul ñett bu dee xaqiqa foo toog yéen ñaar wa ma min najwa min salaasatin illa huwa raabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min zalika wala aksar illa huwa maahumu aynama kuntum wala aynama takunu fu ci mën ñaar yooyu bu mu ci doon baax moo tax ñu di ko nangu yéen ñaar rek mën ngeen a wasifa mën ngeen a xadara ñaari nit rek man ngeen wasifa man ngeen xadara kenn ki bu njàkkam njàppam tojee ki ci des day continuer di wax ca kaw de bëkkale jàppi ñëwaat continuer tàmbali continuer ànd ak moom bu paree moom la ko rëccoon mu fay moom mi jàppi kon taalibe tiijaan bu wasifa suba te wasifa wut ngoon perte na diis ci mbooloo bu wasifa ngoon bu wasifawul ngoon wasifawul suba wasifa wasifawul suba wasifawul ngoon ci mbooloo perte na dix perte les teg leer na waaw pour nga bañ a perte dix nag wasifal boo mbooloo benn yoon ci bés bi boo defee ñaar yëpp nag moo gën waaye taalibi bu du dem mukk wasifa taalibi bu du dem mukk xadaratul juma tey wooyle boppam taalibi tiijaan jombale nga sa bopp xadaratul juma jombale sa bopp wasifa ca mbooloo ma te sëriñ kër Si da radiyallahu anhu daf daan wax ne ah suñ tarixa bi li ko tax a neex day lu sa mbubb rëy rëy rëy rëy ñett yi di ko dem di nga laazim di nga wasifa di nga xadara ca mbooloo ma te ñoom ñooñu ñëpp ci mbooloo lañ ko doon defe mais ci ki fi mujj ci ñun Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh kon kan lu tax nit ñi di jombale seen bopp malaanu wasifa ku am ngant nag am nga ngant ngant la tudd yaag sa borom yéen a xam waaye ñëpp ñu bokk am ngant te ngantit du sax buy sax borom dem maa la ko wax ngant du sax di buy sax rek borom dem nga dégg rek rob nañ ko démb ngant du sax kon yi fi caaxaan yi ñu xewal doo dem fa doo dem xadara doo dem jàkka tuddi sa bopp tiijaan lan nga doo dem wasifa ci mbooloo doo dem xadara ci mbooloo doo dem ca jàkka ja ñu tuddee la tiijaan lan nga te lii ci sartu tariqa bi la bokk ah ñu wéy moo tax Seydina Cheikh la nañ ko fonk julli waxtu yi juróom ca mbooloom jàkka ja boo amul ngan xadaratul juma ca mbooloom jàkka ja boo amul ngant wasifa suba ngoon ca mbooloom jàkka ja boo amul ngant fonk sa laazim ci waxtu ma jël waxtu yi nag door a dugg ci mbir mi waxtu laazimu suba mu ngi tàmbalee min wi foofu lay tàmbalee laazim bu suba noonu naa la nag wird wi ak wasifa wi yëpp laazim la tudd waaye pour ñu ràññeet leen moo tax ñu ne laazim ne laazim ne wasifa ne wasifa ne xadara ne xadara waaye yëpp laazim la tudd laazimu suba bi ak wasifa suba bi mu ngi tàmbalee min wi li tax ma ne min wi Cheikh Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moo ne sama taalibe bu jullee gee déglu leen bu baax Seydina Cheikh nee na sama taalibe bu jullee gee ba sëlmal fim mu jullee gee ba muxtaaru gee jeex mu jàng fa juróom benn hizib ci alquran yoo xam ne njàng ma gaawul ba mu ëpp te yéexul ba mu ëpp mooy ni xosari di jàngee mu rattal mu ne foofu su jeexalee juróom-benn hizib yi rek na jiital laazimu subaam bu amee kum àndal na jiital wasifa subaam muxtaaru gee nag pour ñu noppalu ba dina tukki dix heures et demi lay yem vingt deux heures trente fa la muxtaaru gee yem vingt deux heures trente dix heures ci guddi et demi fa la muxtaaru gee boo nattee nag vingt deux heures muy dix heures et demi ci guddi ba minuit mën nga fa jàng juróom-benn hizib ci nii ko Seydina Cheikh waxe te tubaab bi doo fa gis nga ko minuit rek moom mu dóoral la bu minuit ji jot tey rek nga gis mu dóoral la les vingt te pourtant ñu ngi ci le dix ci islam nag pour wéral charia moom foog nga dem ba fajar xar moo tax am na ñuy wax ne dix heures mën nga jiital sa laasi mu ëllëg wérul wérul de vingt deux ku ci jiital sa laasi mu ëllëg wérul Seydina Cheikh lim wax dafa leer dafa ne fi sama taalibe sañee jiital laasimu suba ak wasifa suba mooy fi jullee gee ba muxtaaru gee jeex mu jàng juróom benn hizib ci alquran yoo xam ne diibul ba ëpp gaawul ba ëpp mu ne su jeexee mën naa jiital laazimam suba bu amee ku mu àndal wala mu am ngantal dem ca mbooloo ma mën naa jiital wasifa suba yow góor nag laazim bi mën nga ko jiital waaye soo amoon ngant soo amul ngant may la nga jiital wasifa wi ndax daf la da ko war a defee ca mbooloo ma moo tax waaye bu dee jigéen nag sàptuñ ci mbooloo moom mën na jiital bu subaam laazimu subaam ak wasifa subaam yow mi am ngantit te ngant bari na yaa xam da ngay xëy liggéeyi te gaa yi moom dañuy wëy rek astafurlah asmala si laa ilaa di wëy rek jëmale déwén te mu wër la ne boo fa nekkee di di wasifa tarde liggéey ah bul wasifa ca mbooloo ma de wasifal ci sa kurus dem wala boo demee nga wasifa ci sa kurus parce que liggéey bi farata la boo amee koo àndal nag te min wi jot doonte sa doom la am na njàpp mokkal na jawharatul kamal te jëlul wird mën ngaa ànd ak moom wasifa te du tee mu wér ngeen ànd wasifa boo xëyee rek julli sa fajar dem liggéeyi juróom benni xisib yooyu nag vingt deux heures trente ba zéro heure mën nga fi jàng juróom benni xisib yooyu su jeexee sañ nga jiital sa laazimu ëllëg ak sa wasifa ëllëg boo amee koo àndal moo tax min wi ma ne min wi su demee nag ba xaj fajar pour faruk fa euh, xaruk fajar des quinze minutes sañatoo ko foofu foog nga xaar ba julli suba ba pare door a laazim door a wasifa leer na moo tax ma ne muxtaar mi mu ngi tàmbalee minuit xam nga fu mu yem boo jullee tisbaar minuit ba ba ngay jullee tisbaar yaa ngi ci muxtaaru laazim ak wasifa bu suba bi moo tax li ngay defal yàlla pour nga xam ko da ko war a xam foofu yaa ngi ci pile moxtaar benn tey waaye boo jullee bu tisbaar jotee nag ba nga julli tisbaar moxtaar mu jeex na daruri bi moo tàmbali daruri bi xam nga fu mu tàmbalee mooy tisbaar xam nga fu mu yem jant bu so feek jant bi sowut boo laazimee laazimu suba wala nga wasifa wasifa suba tuddul fay yaa ngi ci heure bi lii yombul lii yombul ah tarixa bi kum sonnal bu ngoon bi nag laasimu ngoon bi xam nga fu mu tàmbalee fi nga sëlmalee tàkkusaan foofu moom kenn mënu ko lu da nga julli tàkkusaan ba pare gis nga kon awraatu tarixa bi yëpp ci gannaaw julli la ne ki la sant lii sant na la julli mënaloo mënoo defal tarixa bi dara te julli woo bële gannaaw gee la la wax di la moxtaar mi tàmbalee ba gannaaw juróom-benni hizib yi bii bu ngoon bi gannaaw sëlmaluk tàkkusaan fa la tàmbalee xam nga fu moxtaar mi yem vingt deux heures trente fa la moxtaaru laazim bu ngoon bi ak wasifa ngoon wi moxtaaram mu ngi tàmbalee fi nga sëlmalee tàkkusaan jëm ba vingt deux heures trente muy dix heures demi ci guddi fa la muxtaar mi yem daroori bi moo tàmbalee foofu vingt deux heures jëm fajar balaa fajar di xar quinze minutes avant fajar waaw lii yaatuwul lii yaatuwul yow ma ci Europe mën nga ko def yow mi ci fii mën nga ko def lan la lay yàqal damay laaj lii lum yàqal nit foo ko tëlee rek fa ca des ak lay xaar waay waay waay minuit minuit xanaa dégguñ li may wax minuit minuit ba quatorze heures waaye fii foo ko fi defee yomb na mooy moxtaar mi daruri bi tàmbalee quatorze heures ba jant so waaye lii lii borom tooñut kenn bu ngoon bi mu ngi tàmbalee bi nga sëlmalee tàkkusaan muxtaar bi ba vingt deux heures trente daruri bi tàmbalee vingt deux heures trente ba fajar xar lii mooy awraatu tarixa bi muxtaar mi ak daruri bi pour kiy def xam li muy def lan la mën koo def en temps ak sagoom ak teeyu bakkanam bañ koo parax-paraxee te teeylu ko waxoon naa ko Seydi Aji Malik nee na ca faakeetu tulaab booy laazim nii toogal toogi ni kuy julli su dee mën nga ko soo ko mënut nag nga def na nga mën soo amee cinquante ans may nañ la nga ferenku laay waaye du teggin nga toog toogi ni kuy julli yor sa kurus teg sa loxo ndeyjoor bi ci sa pooju càmmoñ tëj sa bët ndànk am na ku ma woo téléphone nag naan ma waaw man jàkka ji ma nekk balaa meewu ma ko sax dafa ne ci marché bi commencé naa ko ba ma déggee nga wax ko ba tey waaye damay bañ paa dugg si naan kii mbaadu dafa silmax wala lu ko dal bàkkaar boobu laa leen di bañal ma ne ko lu ciy sa yoon bu ubbi sa bët yi gënalee nga ubbi sa bët ñàkk li Maodo wax yaa gën ragal yàlla Maodo bu tëj ma ne ko ñoom ñi naan mbaadu dafa silmaxa ñoom ñooy am bàkkaar yow mu ne bàkkaar la leen di dawal ma ne ko bu leen ko dawal nag yow sa tariixa moo la ko sant ñoom ñoo waroon am maandu teg gu day ni maandu ci yow bañ gis nga xool sa bët wala nga tëj sa bët maandute bi yàlla sant jullit nga maandu ci moom ñoom dañ ko war a am yow sa tarixa moo la ko sant jëfal bu lee nag nit ñi seen wax moo la gënal ubbil sa bët ñàkk li Maodo wax bu dee nag tëj sa bët bàyyi leen ak seen bàkkaar moo tax mu ne waaw kon ma ne ko yaa xam tëj sa bët daal lañ wax tëj sa bët yor sa kurus teg sa loxo càmmoñ bi ci sa lupp ndeyjoor astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah téeméer gannaaw faati gannaaw yéene ak fatiha salaatu ala nabi téeméer laa ilaha illallah téeméer inna allaha wa malaikatahu bam jeex nga ubbi sa bët boo amul benn ngant toog fa 30 minutes door a jóg door a naan ndox soo maree soo amee ngant nag jógal dem ndoxi sa ngant ngant la topp la tudd leer gi missile guidé la la lay topp ndax nganta tax li yombut soo amee ngant nag ngant la tudd toogal ci kaw bu dee da ngay toog ci kaw bu dee dangay ngay ferenkuraay ngant nganta tax noo mën a toogee nga toogee ko te laazimee ko Seydi Hadji Malick nee na ci fàkkee tutulaab mu ne melal ni muus muy tëru janax pour jàpp ko ci régler say cër mu ne ci ngay amee dëgg-dëggi laazim Cheikh Mamadou Ghali mii toog na di laazim doomam waddee ci étage daanu ci kanamam te yëgu ko Cheikh Mamadou Ghali ko concentré wu na mu doon laazim waaye li ma fi wax keroog di laazim hmm. Hmm. Hmm. lu ne nga dugg ca ah, baax na WhatsApp bi du arrêté karaka kay kiw kiw bu ñëw nga liir tontu yaa ngi ci laazim ci loo ne néew ci laazim muñalal yàlla yooyu boo paree dem ci yooyu leer na xadaratul jumaa moo ci des ma dugg ci xadaratul juma benn moxtaar la am amul daruri benn yiw la am amul ñaar mooy gannaaw tàkkusaan lañ koy tàmbali kenn mënta xadara lu dul gannaaw tàkkusaan am na ñu koy def léegi nag wérut de te man sama baat ni poto xadara ba noppi dem doxi say soxla fu mu am te gaa yaa ngi koy def léegi xadara mbooloo tas ko dem doxi say soxla alaaji ma lay sëñ badara gaa yaa ngi koy def tas wasifa bi tas xadara bi dem doxi say soxla ne mat na fu mate te Seydina Cheikh boo demee ci kasful xijaab wala ca rimaax bu Cheikh Omar Cheikh Alhaji Omar wala ca faakeetu tulaab bu Seydi Hadji Malick Seydina Cheikh dafa ni xadara bi day ànd ak jant bu so gannaaw tàkkusaan la ba jant bu so mennum kasful xijaab bu Cheikh Sukayri moo def une heure de temps téere yi ci des yëpp une heure trente lañ def mbooloo bu demee ba jant bi di waaj a so ñu tëj toog cinq minutes ñi yeesal njàpp yeesal njàpp ñu xaar ñu nodd ñu julli day jokkaloo ak jant bu so képp ko xadara ba noppi dem doxi say soxla amoo xadara képp ko amul ngant toog ci bunti jàkk ji di waxtaan ba mu des quinze minutes nga ñëw lalaan lal malaan amoo xadara une heure de temps fokk mu mat minimum ci mbooloo ngeen door a am xadara maximum deux heures une heure trente la Maodo bind ci fàkkeetu tulaab Cheikh Al Hadj Omar ca Rimah yeneen kutubu tariqa bi yëpp une heure trente lañ def mennum Cheikh Sukayrij moo ci def une falaki falakiya saa a falakiya muy une heure de temps kon luy ndeyu paa yii ci bunti jàkka ji toog di jëw rek ak fen ba jàkka yëpp am nañ ba jàkka yëpp am nañ baamu mbedd paa yëpp fa la ji toog jàkkaarloo koy raw bi Adja summi de Adja summi na de yow seeti ko ah seeti ko da ngaa ragal badara yow da nga ragal ah seeti ko yooyu rek la ñuy nekkee ci bunti jàkka ji di fen rek di fen rek di fen rek di jëw rek lu leen tey dugg ci jàkka ji def seen farata man li may wax kat yéen ñëpp koy gis de xanaa ñeme wax ak ragal a wax man nag kenn daf ma logalut damay logg loggal li yàlla bëgg de dinaa ko ko waxal incha allah li tariqa bi bëgg dinaa ko ko waxal dinaa ci ànd ak yar ak teggin nag waaye toog ci bunti jàkka ji ba mu des quinze minutes nga dugg na la amoo tus dara amoo ko une heure de temps minimum maximum une heure la borom tariqa bi wax xadara mbooloo bu dee individuel ndax ngant yow kenn la Seydina Cheikh ne bàyyi nit ba jant bi di sole yaay xool nag sa gaawaayu làmmiñ nga def ci mille wala mille deux cent wala mille trois cent maximum mille six cent la Cheikh Oumar wax bu la neexee nga jël yëpp laa ilaha illallah gannaaw faatiya ak yéene bu la neexee nga bàyyi fi laa ilaha illallah jël yëpp allah allah waaye Maodo nee na Seydul Xaaji Malik nee na nga variété ko moo gën ndax loolu la sëriñam wax Cheikh Oumar ak Cheikh Mohamed Al Ghali mooy huit cent laa ilaha seydina muhammadu rasulullah la salaamullah huit cent allah allah ndax bokkuñu martaba laa ilaha illallah ak allah allah bokkuñu martaba mos ci bii mos ci bii nag baax na ñankataŋkañ bu maafe ñëwut du baax ah ñankataŋ kese bu maafe ñëwut du baax maanaam soos ba waaw ah, kañ ah, mooy na 800 laa ilaha illallah 800 allah allah bu leen boo defoon yëpp it nag laa ilaha laa amoo ci bàkkaar boo defoon yëpp allah allah amoo ci bàkkaar wér na waaye variété ko nag moo gën kon nit yow mi nga xam ne da nga julli tàkkusaan rek ne xaaral ma laazim wasifa xadara dem doxi samay soxla amoo laazim de am nga ko wasifa xëy na boo amee mbooloo am nga ko waaye xadara moom amoo ko xadara mubaasaratan foog mu jokkook jant bu so sowu jant pour mu mën a wér lu tax Seydina Cheikh dafa ne maamam da ko ne yowmal qiyaam bésu ajjuma lay taxaw tukki tépp ajjuma tukki àddina bu yàlla di tukkal àddina bésu ajjuma lay tombel gannaaw tàkkusaan lay tombel mu ne ko kon roofal naa la foofu xadaratul juma dinañ ci ñëw samedi bi ajju samedi bii di ñëw lu tax mu roof ko foofu xadaratul juma lu tax mu roof wasifa gannaaw tàkkusaan lu tax mu roof wasifa gannaaw faja ak laazim yooyu yëpp secret la dinaa ci ñëw samedi bii di ñëw incha allah ñu door a tëj waaw kon yii nit ñi di def fu mu tege xadara dem doxi bay di fu mu am xadara ba noppi dem doxi say soxla vingt minutes trente minutes quarante minutes jant doo a so ah loolu amul fenn ci tarixa bi gisuma ko fen ci tarixa bi fu mu wér ku ko def nag tuddee ko maa ko def waaye bu ko askanalee tariqa bi wérul ci tariqatu tijaaniya bii al ahmadiya al ibrahimiya al xanafiya wéru ci aywa nag ñu dem balaa ñu naan day xuloo xuloo de li am ci tariqa bi lay wax tariqa bi nag seydina cheikh moo wax ni suruutu tariqati li tariqati laa li cheikhi leer na seydina cheikh nee na chartu tariqa bi tariqa bee ko moom sëriñ si moomuñu ko sëriñ bi ak yow yéen a ci yem li muy def ngay def su defatul defal su sëriñ bi demul xadara demal xadara su wasifa jiwul wasifaal su demul jàkka ja demal jàkka ja yaag moom a ci yem lan cay amee moom du ko ca amee yëf yaa ngi foofu de Seydi Hadji Malick nee na foofu la secret tarixa bi nekk mooy ci yim la sant ci ngay yéegee moo lay yéegal de yi tarixa bi santaane nga nekk ci mooy tax nga yéeg waaye jàpp naa tarixa bi rek orne sa kurus dóor sa bonnet carré wala sa da baax kolu eh, taalibe cheikh nga naan est-ce que est-ce que est loolu taxul ñuy wax taalibe cheikh taalibe cheikh da ngay tënku ci chartu tariqa bi di ko jëfe pour nekk tari taalibe cheikh ci ngay yéegit nag kon fu ñu teg yii ñuy def léegi surtout nag xadara juma niñ ko banalise léegi di ko fowee toog ba mu des trente minutes ngay dem di xadara xadara woo te amoon ngant bu fekkee yow mii dabi mbooloo ma waaye mbooloo mu toog di xaar trente minutes wérul quinze minutes moom waxi noppi une de temps daal mooy xadara bu mat sëkk wala une heure trente loolu la téere tariqa bi tudd wax naa leen ko kashful hijab moo ne une temps de temps bu'yatul mustafid une heure trente rimaax bu Cheikh Alhaaji Omar une heure trente faakihatu tulaab bu Seydul Haaji Malik une heure trente man ay référence laay joxe de yeneen kutubu tariqa bi yëpp it une heure trente lañ joxe kon wa kay fa nag toog ba neex la rek nga dugg ci yàgg allah allah waxoo xamoo amoo dañuy fo rek di caaxaan rek tarixa bi kenn du ko fowee surutu tariqati li tariqati laa li cheikhi Seydina Cheikh nee na sartu tariqa bi tariqa bee ko moom sëriñ si moomuñu ko kon jëfe rek nag aywa Seydina Cheikh nag nee na ki jàpp sama tariqa di ko jëfe neex-neex yi door a ñëw waaw kañ ah noonu la de waaw kañ Seydina Cheikh nee na ki jàpp sama tarixa bi nag yow taalibe Tidiane bi jàpp nag ba tudd Tidiane léegi mu ne dig naa la quatorze yëf yoo xam ne yaa ko moom bokkoo koo kenn hmm, ak a neex waaye la ko jiitu dégg ngeen ko ba pare Seydina Cheikh nee na premier yow mi jàpp sama tarixa bi yow taalibe Tiijaan mu ne na la wér ne maa la war lu dugg àjjana bilaa xisaabin wala iqaabin wala munaaxasatin di nga dugg àjjana te kenn du la vérifier kenn du la càmbar kenn du la xool direct xam nga kële loolu la amoon waaye am xoolal différence bi mu ne ah man Cheikh kële amoon na ko mu ne ah kële lam amoon te yow amoo ko xam nga mooy lan ñu ne ko déedéet mu ne man Seydina Cheikh booleel naa la ci ak say doom yoo jur say doom yoo jur ak sa ndey boole naa ko ci ak sa baay boole naa ko ci donte duñ tiijaan Seydina Cheikh ne boole naa ko ci demande bi boole naa ko ci warlo bi yow say doom yi nga jur yépp sa ndey sa baay yamu ca de mu ne ak sa jabar neexul ah <laughs> laa ilaha illallah awaay ah, seydina cheikh a baax waaw yow say doom góor ak jigéen a ci yam na sa baay sa ndey ak sa jabar ñu ne ko déet fii la yem mu ne ah ah pareeguma ñu ne ko mu ne ak say sët ñu ne ko yan sët mu ne say sëti doom yu góor ñu ne ko jigéen na mu ne boolewuma ci doom yu jigéen ya seeni sët ñu ne ko lu tax mu ne mën nañoo sëyi feneen dégg nga mu ne mën nañoo sëyi feneen ñoo ñaa leen res sët yooya ñoo ñaa leen res waaye man sët yu góor yi nag gannaaw nasab la rek deret la moo lee woon ne deretu yonent bi du dem safara mu ne bii meen la bii deret la geño gi laa topp mu ne moo tax ba ci sët yu góor yee lu mu sori sori Seydina Cheikh ne na ñëpp maa leen war loolu àjjana aywa mooy première étape salaamaaleykum rek lii la la wax mu ne ñaareel bi yow mi jàpp sama tarixa maa la warlul ne kenn du la mbugal kenn du la mbugal fii ci àddina kenn du la mbugal ci àllaaxira te dinga nga dee te doo nekk yéefar leer na mbugal la wax de xam nga mbugal bu njëkk ba léegi sax yàlla mën na la mbugal toroxalee la noo xam ne ah waaw ak say goro dinaa ci ñëw waaw waaw atumaan xam naa ku bëgg goroom la ndeysaan <laughs> nee na damaa fàtte goro yi wax na dëgg ak say goro ah moom dama ko tëb na na dëgg yow sa goro war na laa fay de atumaan ah, ku bëgg goro bi la ndeysaan lii tax du ñaareel waaw waaw pourtant maa ko tëb de wax na dëgg de mu ngi nii ak say goro maanaam ñi la may jabar nga goro wanteek ñoom mooy sa goro bu góor ak bu jigéen yëpp àjjana dina Cheikh ne maa leen warlul àjjana nee na ñaareel bi mooy doo dee mukk yàlla du la mbugal fii ci àddina du la mbugalit ëllëg ci àllaaxira ndax jëmmi yonent bi la lay xoole nee na doo dee ci kéefarit nag maa la ko warlul ne doo dee ci kéefar nee na ñetteel bi waaw Ah, ñaareel bi waaw kañ dama tëtëb ñaareel bi mooy li atumaan doon wax say doom yu góor yu jóg say sët yu góor yu jógee ci sa euh, ci sa doom yu góor ñooñu ca lañ bokk ñaareel bi laa tëboon ñaareel bi nee na Seydina Cheikh nee na na la wóor ne yow mi jàpp sama tarixa bi yàllaa ngi la considéré comme asxaabu rasul comme Seydina Aboubacar ak Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali ak talxata ak zubayru ak ab ak hamzatu daraja jeñ amoon moom la la yàlla jox ndax asxaabi asxaabuka boobooy ñaareel bi nee na ñetteel bi nag képp koo xam ne jàpp nga sama tarixa bi mooy kenn du la mbugal fii ci àddina ak àllaaxira nee na yow mi jàpp sama tarixa bi ñeenteel bi xamal ne imaamul mahdi boobu ñuy wax bu mag bay ñëw mujjug jamono tey ànd ak yoon ci yàlla isa ne na naw ko rek ndax mahdi yu la tudd waaye xamal ne ëpp la cër ci lenn ci yàlla ndax sa mbokkum taalibe tiijaan lay doon ne na mahdi yu ak tur wa ngay dégg ci moom ak rëy ba na rëy ca yow na tur wa yëkkate ko mu ne waaye bu ko ñeede ëpplewu la dara ca yàlla sa mbokkum taalibe tiijaan dong la nee juróomeel bi képp koo xam ne jàpp na sama tariqa bi mooy li ma waxoon ci njëlbeen na ko wóor ne moo gën a kawe junniy aqtaab yoo xam ne bokkuñ ci tariqa bi waaw ñeenti mooy juróomeel juróom-benneel nee képp ku jàpp sama tarixa bi na la wóor ni ismullahil azamil kabir yaa ngi koy sikkër ndax mu ngi ci biir awraat yi te du la yàqal du la def dara doo ci alko mooy juróom benneel bi juróom ñaareel bi nee na juróom ñaareel bi képp koo xam ne jàpp nga sama tariqa bi ruuxu ismullahi yépp maanaam turi yàlla yëpp yëpp yëpp seen ruux xam nga moo tax turi ya di dund nee na ruuxu turu yàlla yépp yàlla branché na ko ci sa jëmm ji boo ci yëngal mu dox boo ci amee ndigal nee na boo ci yëngal mu dox boo ci amee ndigal waaw boo ci amee ndigal nee na ruuxu ismullahi yëpp yàlla branché na ko ci sa jëmm ji boo ci am ndigal boo koy yëngal mu dox na ko yàlla bëggee hmm. mu ne ñu ne ko lu tax mu ne ndax tariqatu tijaaniya mooy ruuxul asmaa yëpp waaw mooy ruuxul asmaa yëpp mooy laamu yàlla yëpp laam tubaab mooy wax laam waaw na juróom-ñeenteel bi juróom-ñett juróom-ñetteel bi képp koo xam ne jàpp na sama tarixa bi defal naa ko demande boo xam ne lépp lu yàlla di joxe ci teraanga yàlla du la ko xañ mu ne lu yàlla di joxe ti ci teraanga rek fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira yàlla dina ko teg ci sa loxo yàlla du la ko xañ mu des na nga am ittee yegg ca mooy lam waxoon ne ittee doomu aadama not na kaw nu yëpp itte nag moo la fa yóbbu yàlla du la xañ daraam daal nee na juróom-ñeenteel bi képp koo xam ne jàpp nga sama tariqa bi sirru ruuxu asma yëpp maanaam secret yi ruux ya xam nga ruux dafa am secret nee na secret yu yooyu nga xam ne moo lal turu yàlla yëpp mu ne ba ci ismullahil azamil kabir ak daairatul ihaatati ak yeneen yu mel ni ñoom mu ne na la wóor ne secret ba yàlla nga ko roofaale ci sa biir ngay dox ak moom tur yu mag yooyu gaa yi di wax daairatul ihaataak asmaul idrisi yooyu yëpp Seydina Cheikh ne na secret tur ya mu ngi ci yow nga di ko doxaale yow sama taalibe mu ne ba ci daairatul ihaata ak mbooleem yiw bu yàlla di sedd awliyaa yi mu ne yow lay njëkk a sédd ba noppi ca ka sikkar wa de dinaa ci ñëw léegi mu ne fukkeel bi képp koo xam ne ismulaahil azamil kabir réy na ci sa xol ba nga yaakaar ne amuloo ko mu ne na la wóor ne yow taalibe cheikh bi xamoo sa bopp mu ne ismulaayil azamil kabir boobu ak yiiwam yépp mu ngi ci biir tarixa bi ñu defal la ko ak yiw yu mu ëmb yépp nag mu ne la ca gën a mag ba ci li gën a tuuti lépp yàlla nga ko dëxiñ teg ko ci sa loxo yow taalibe tiijaan bi mu ne la ca gën a neex keneen ko am tur wi te du tiijaan mu ne lum ca liggéey dañ koy dajale jox lay séddale ko taalibe tiijaan yi ba noppi door koo def ci kontam moom mi liggéey te du yàq dara ci kontam mu ne fukkeel <laughs> mu ne fukkeel bi ak benn képp koo xam ne liggéeyal nga sax taalibe tiijaan wëlbatikol ay dàllam wala nga yëkkatil ko bant tegal ko fële te kooku di tariqa tiijaan mu ne yow Seydina Cheikh man Seydina Cheikh boole waale naa la ci sama garantie bi ndax ni nga fonkee sama taalibe bi di ko liggéeyal mu ne doonte xeer la boo ko yëkkatil ci ndigalam moom sama taalibe bi mu ne nag bi gën a garaawati yow sama taalibe fukk ak benn mu ne buñ dajale woon mboo leen ñi nekk ci àddina bi yépp di jaamu yàlla fukk ak benn mu ne buñ dajale woon mbooleem ñi nekk ci àddina bi yépp di jaamu yàlla mu ne seen jëf yi bu ko yàlla nangoo ba noppi ba teg ca lam cay teg maanaam fulandil leen ko ba noppi mu ne balaa koo bind ci carnet ñi ko liggéey dañ koy bind ci carnet taalibe tiijaan yi ba noppi door koo bind ci seeni carnet ak neex a gëm dinaa ci ñëw samedi bii di ñëw xaju fi waaye dina dinaa ci ñëw cinq mi cinq minutes ma dese mu ne fukkeel bi ak ñaar muy douzième point mu ne képp koo xam ne yaa ngi ci yoonu taalibe nekk yoonu tarixa bi nekk ci di taalibe tiijaan mu ne kenn rek la supérieur mooy xutbu bi mu ne xutbul fardul jaami rek mooy sa supérieur ñi ci des ñëpp taalibe lañ comme yow mu ne yow sama taalibe bi jàpp sama tarixa treizième point li nga ci amee ñu ne ko ah déedéet mu ne am na ci sama biir taalibe yi nag mu ne foofu nag ju ñépp ñu ne ko kan la ci ñoom mu ne ah duma leen ko wax góor-góor loo koy maye mu ne am na ci ñoom ku leen gis altine sa yaram araamal na safara ku leen gis ajjuma sa yaram alaamal na safara ci samay taalibe lañ ñu ne ko ndax ñëpp la mu ne du ñëpp nag waaye ña góorgóorlu ba yegg ci martaba bi ci samay taalibe danañ ko am mu ne bari nañ nag ko xam ñooñu ñan la moo tax maam Abdoulaye Niass dinaa ci taxaw Alaaji Abdou Aziz moo ko nettali bi jógee fas jaar si ci Cheikh Seydi Seydi Hadji Malick waxtaan ak moom ba toog fa Maodo di ko ganale bàyyee ko daara ji muy jàngale yëpp ya ca xew xam ngeen ko ci mbaax gu maam ablaay Niass baax te jàppee Seydul Haaji Malick doomam Maodo it jàppee ko bàyyi nee na Seydi Haaji maam Abdoulaye Niass bés muy Maodo di toog muy waxtaan ndax moo daan waxtaan nee na ba yegg ci baat bii ne Seydina Cheikh nee na taalibe mi am na ñoo xam ne ku leen gis altine ak àjjuma sa yaram araamal na safara boo leen ne seedeel ne gis naa la ñu seede ne gis niñ la foog mu am ci nag seedeel ne gis naa la moom it mu seede ne waaw seede naa ne gis nga ma ba si altine muy lëndi ak ba si àjjuma muy vendredi nee na sa yaram araamal na safara yow mi leen gis doonte mu ngi ci ñoom te xamuñ ko ku ñu romb ci mbedd mi amaale nga ci mu ne maam Ablaye Niass nag di waxtaan ba mu yàgg ne leen seen waa ji de bokk ci Seydi Hadji Malick mu ne ñëpp gàkk ne pat mu ne Maodo mii de bokkul ci ñooñu ñi Seydina Cheikh di wax ne altine bu jot ak àjjuma bu jot ñu mu ne Maodo mi bokk ci ñëpp ne pat mu ne du ma laaj ñu ne ko déet yow rek lañuy ñuy déglu mu ne Maodo mii altine talaata àllarba alxemes àjjuma samedi dimanche ku ko ji gis sa yaram araamal na safar tous les jours la moom Seydi Hadji Malick maam Ablaye Niass moo ko ko seedeel kon fukkeel bi ak ñeent muy quatorzième Cheikh Seydi Ahmad Tidiane nee na képp ku jàpp tarixam bi waaw mu seede lool na leen seedeel ne gis naa la nga seede ko ne gis naa ko ngeen muy bési altine wala alxemes nee na yow mi ko seede ak moom mi la ko seedeel yéen ñaar ñëpp seen yaram araamal na safara di ngeen dugg àjjana bila xisaabin wala iqaabin wala munaqasatin mu am yeneen yum ci dolli nag yoo xam ne day protéger taalibe tiijaan bi nee na képp ku tooñ taalibe tiijaan ne la wóor ne boo ko tuubul di nga dem jahannama Seydina Cheikh mooy wax de nee na képp koo xam ne jàpp nga sama tariqa bii ñu ormal la kala ormal waxoon na ko nee dina dee ci sukuraat bu woyof te balay dee dana xam yàlla gis yàlla bi mujj ci bi mu garantil nekk taalibe tiijaan moom Seydina Cheikh nee na sama taalibe bii képp koo xam ne sama taalibe nga ñu ne ah mu ne maa la war lool fathul akbar balaa ngaa dee ñu ne ko luy fathul akbar mu ne yàlla ubbil la àddina ak àllaaxira nga xam li ci xew balaa ngaa dem mu ne ñii nag dama leen koy defalee buñ jàppee ba ca kanam ñii bu jàppee rek ma defal leen ko ñii bu jàppee ba ca kanam mu ne am na ñoo xam ne sax buñ nekkee ci sukkuraat laa leen koy defal ndax kenn ku ne fa nga ko mën a yenoo fala la koy yenee waaw <laughs> kañ kenn ne fa ko mën a yenoo fala la koy yenee ku war a yenu dix kilos nga yen ko une tonne nu muy def day dee xale bi war a namp eh, namp weenu yaayam ah xale bi ni war a namp weenu yaayam nga jox ko tibbub ceeb fu mu jëm jeex na moo tax fi nga ko war a yenoo rek moom Seydina Cheikh xam na ko fala la koy yenee yow taalibe bi moo tax ñu bëgg taalibe tiijaan boo gis muy yor njàpp ndax fatul akbar fi mu koy ñëwalee du xam kañ la te bu fekkee yorul njàpp ñaar rek la dee wala dof bu yegsi rek te fekk yoroo njàpp dee war a dof moo tax ñu tudd bëgg toujours taalibe tijaan muy ànd ak njàpp moo tax Seydina Cheikh nag ne yii yépp nag maa ngi leen ko wax waaye na leen wóor ne bum tax ngeen wóolu pexeem yàlla mu ne maa ngi ko lal man Seydina Cheikh ci bañ a wóolu pexeem yàlla mu ñu ne ko mooy lan mu ne falaa yamanu makkarallahi illa al qawmu alxaasiruun indi aaya boobu ci alquran ne kenn du woolu pexem yàlla lu dut ko nara la perte kenn du wóolu pexem yàlla lu dut ku nar a perte xam nga lu tax naan waaye yow sama jabar sama doom samay goro waaye naa gundaa ndaat ah yow wóolu woo pexem yàlla te Serigne Cheikh Tidiane si nee na rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne yàlla boo amoon sant njuuy lay sant njuuy nee na boo koy napp fii mu nga fële boo xalaatee lii lële la mu ne yàlla kenn du ko xalaatal paaka la kenn ju ko jiitu ci mbaram yii yëpp lëg li muy neex neex neex Seydina Cheikh nee na day ànd ak doo wóolu pexem yàlla la Seydina Omar waxoon ne buñ demoon bi àllaaxira yàlla ne ñëpp baal naa leen ba des kenn mu ne billahi man Omar dama naan man la yàlla di wax may kenn koo ko des duma ko puus kenn ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñàkk a wóolu pexeem rek Seydina Omar mu ne ndax ñàkk a wóolu pexeem te al ashru mubashiruna bil janna fukk yi yàlla dikk àjjana Seydina Omar ca la bokk te moo wax wax bii nee na bu buñ demoon ba yowmal am yàlla annoncé ci rajoom ba ne baal naa ñëpp man yàlla bem des kenn mu ne billahi man Omar dama naan man la du ma ko puus kenn ñu ne ko lu tax mu ne bañ a wóolu pexem yàlla rek ah waaw kay ndax lan laa yusalu amma yafal wa hum na yàlla kenn du ko ne pourquoi moom mooy taxawal nit ñi naan leen pourquoi kon nag mbokk yi nañ ko dégg bu baax ànd ak nag bañ a xeeb foofu lay jeexale sama kàddu xam nga luy bañ a xeeb Seydina Cheikh nee na bul xeeb kenn ku sama taalibe bu ko xeeb mu ne xeebaate bu ko ci kenn boole ndax am lii ba noppi di xeeb jaami yàlla yi ci tar su nga jëm moo tax mu boole ci ne bu leen xeeb kenn yaa fawqa ñëpp tax ngay xeeb ñi ci des bu yàggee nga ñàkk li nga yor Seydina Cheikh ne boole leen ci bu leen xeeb kenn ma indi nag benn bayit boo xam ne sama sëriñ ba moo ko indi woon muy Cheikh Alhaaj Abdoul Aziz dal di wax ne xeebaate baaxul ci la indee woon xista yonent yàlla noox damay tënk li tax mu tudd noox ba mu yàgg nag mu indi Abdoulaye ibnu euh, kële jógee Espagne xam na ko maa ngi koy nuyu nii Chérif Diallo ak ndoomam si mu àndal Espagne la jóge ñoom laay defal tàkkusaanu Alaaji Abdu at bu jot ca Andalusia foofu nag yem na ci képp mu ngi nii ki may wax Andalousie la dëkk Abdullahi al Andalousi Alaaji Abdou Aziz moo tax nit ñi miin turam am na ku ñuy wax xassus xaritu Ousmane Seck la kii xam na ko avocat la ca Espagne mooy plaider noir yi daanaka te du fayee ko moom Abdoulaye al Andalousi rek la gëm daanaka yónnante la ko def ma ne ko ah du yónnante nag waaw ma ne ko ah baax na de waaye du yónnante xassus waaw kii xam na ko shérif mii xam na ko waaw Abdullahi al Andalusi douze mille ci taalibe la yoroon boo demee Espagne dañ koo gëm gëm boo xam ne alaaji Abdu du nit te moo ko indi ba nit ñi xam ko douze mille ci taalibe la amoon Abdullahi al Andalusi amoon na ca biir taalibeem ya ku ñuy wax Chibloun Chibloun booba nag moo indi woon yëf ya Chibloun moo romb rek am mbooloo dal di ne mbooloo mii de ku ci toll ni Abdoulaye Andalousi al Andalousi sax xaw ma ko xanaa man mii rek ku ci mel ni man gisuma ko te Chibloun mokkaloon na fanweeri junniy ahadis ci hadisu yonent bi trente mille fukki njàngi ni alxuraan yeeg ñeent yëpp daf ko daan jàng mboole téere xam-xam yi fiq yëpp daf ko mokkal fi mu waxee loolu nag muy romb ci benn dëkk gis gaa yi di root mu séen ca benn xale bu jigéen yàlla man ndekete nopp na xale bu jigéen bi ñu dugg ci dëkk bi ñu dal ba noppi mu laajte xale bu jigéen bi fu mu dëkk ñu wax ko ko mu dem ci kër yi bàyyi xale bu jigéen bi ne ko sa doom ji laa bëgg mu ne ko malheureusement yow jullit nga man yéefar la duma la may sama doom xanaa nga tubbi mu ne ko jaral na ma ko fekk bi mu waxee lii rek nee na fi mu taxaw la yëg yaram bi di lox di trembler di lox di lox mel ni garab gu ñuy yëngal mu ne ba mu yàgg rek mu jékki-jékki am lu jóge ci dënn bi rek naaw ndekete mooy liimaan ji moom la yàlla génne moo tax mu dof ci ndaw sax bi mu demee waa ji ne ko nga xanaa nga génn mu génn taalibe yi mu àndal te mu ngi ànd ak taalibe taalibe yi ne ko sëriñ lii lu ko jar mu ne leen ndaw see ma ko jaral seetal lii abdullahi al andalusi taalibeem bi ñuy wax shibloon génn génn ci diine ji taalibe yi ñii toog fa di jooy ñii lu ne ñu daj ko mu ne leen yéene ñibbi de man ñibbiwuma maa ngi fii ci sama ndaw rek yàlla mën na nattu alaaji male taalibe yi yi ko daan wax ne foo dee ma dee ñoo toog waaye am na ñoo xam ne li alaaji ma la kan mu baax mii di wax ne buñ la nee foo dee ma dee booy ñii booy dee ñu daw taaliba yooyu daw dem ña ko gëm piir nag des ca dëkk ba sëriñ ba di xëy di dem église di ànd ak ndaw si mu ñëw wax ko Abdoulaye al Andalusi mu ne seetal leen ma lu mu def ci diggante bi te kenn xamu ko te moom rek moom en personne moo ko xam parce que xolam moo ko xalaat waaye tudd ko de dafa ne mbooloo mii taxaw rek te mbooloo ma ñoo doon root te ndaw sa ca la bokk yàlla na ko xaaral ma toroxal la ci ndaw sii mu ne mbooloo mii de waxuma sax Abdoulaye al Andalusi waaye man mii rek ciblun wecci naa téeméer ci ñoom yàlla rekki liimaan ci mela mu nopp ndaw sa ba dof ñu may ko ko mu génn ci lislaam ànd ak ndaw si ñu ñëw wax ko Abdoulaye al Andalusi mu ne seetal leen ma lu mu def ñu ñëw laaj ko mu ne xamul fekk xam na un an ba dugg ci deuxième année ñu ñëw mu ne leen dëgg dëgg nag dama foogoon ne dinaa mën a rëcc waaye yëg naa ne duma mën a rëcc dem leen ci Abdoulaye al Andalusi ngeen ne ko dama xalaatoon ne mbooloo mii ma fekk fii ci teen bi ñuy root waxuma ko moom waaye man rek wecc naa téeméer ci ñoom mu ne ko bi ma xalaatee loolu ba noppi nag laa yëg sama yaram wi di rek ragi am lu génne ci sama dënn bi naaw mel ni picc ndëkkate limaan jala amatuma liimaan mënatuma sax faatiha ci ko mokkaloon fanweeri junniy ahadis ci hadisu yonent bi faatiha sax mokkalatu ko xamatu dara luñ ko laaj mu ne xaw ma ñu ñëw wax ko Abdoulaye al Andalusi moo tax kilifa baax Abdoulaye ne xeebaate bala moo tax Alaaji Abdou Aziz daan ci teg ne yal na lépp yàlla rëy ci ñun ni yàlla rëyee ci ñun sëñ Abdou moo ko daan wax daf daan wax ne yal na yal na lépp yàlla rëy ci ñun ni yàlla rëyee ci ñun dal di tegaat ci ne ni yàlla rëyee ci ñun yal na lépp yàlla rëyee noonu ci ñun loolu mooy wax bi waaye di xeebaate baaxut biñ ko waxee nag Abdoulaye al Andalusi mu dugg roq def xel wa yonent bi feeñu ko ne ko yomb na pour mu del siwaat waaye yaa koy gàddu ndax yaay kilifaam mu ne ko waaw mu ne ko di feebar atu yàlla boo du jóg ci sa lal bi mu ne ko nangu naa yonent bi roofaat ko liimaan ja fa mu toog mu xadis yëpp del siwaat alxuraan ji del siwaat dem mujj tuubloo jabar ji tuubloo bàyyi jabar ji dugal leen ci diine Abdoulaye Al Andalousi door a yóbbu ci kaw lal bi mu tëddoon pendant un an muy deux ans ci benn baat boo xalaat te waxoo ko mooy ñii maa leen gën ñun wattandiku xeebaate xeebaate baaxul xeebaate baaxul ñu am mbégte bu baax nag di nuyu suñu sang suñu doomu sang suñu sëriñ suñu doomu sëriñ di soxna ummu bu sëriñ mouhamadul moustapha bu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si al maktoum bu sëriñ Babacar si waaye ban soxna ummu bu soxna asiyatu si bu seydi mouhamadunil mansour borom daara yi bu seydi aboubacar si bu cheikhul xaaji malik mu ngi nii toog ci ginnaaw ñu ngi koy nuyu di ko sant doomu bete bete boobu la du noonu lañ koy waxee ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla sa doomu sëriñ bu ñëwee fekk la ci lu mel nii sant yàlla la ci yow mii taalibe kon ñun ñii taalibe ñu santaat yàlla suñu doomu sëriñ a ngi nii toog alhamdulillah buñ fi doon def naka sa dut noonu xam naa ne du fi ñëw mukk waaye lii ñu fiy def sedd na xolam sedd na xoli ay waajuram sedd na xoli ay maamam ndax ay maamam lañ koy defal ak i waajuram kon soxna asiyatu euh, soxna umm maa ngi lay ziyaara di la nuyu di la jox sa wàccuwaay wi sa yaay amoon ci man gannaaw ba mu nekkee sama sëriñ ba noppi sa jur bu baax wii di sama nijaay man doomu nijaay ji sax duma ko wax fi jëlal bàyyi naa la ak sëriñ bi waaye daal sama nijaay ju baax ji di sëriñ Moustapha si responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati yow mii toog di doogit ci moom di doomam fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ah su ma juumul sax du may taaw damay bañ rek mooy taaw di benn dong ci ndeyam muy soxna aasi bu sëriñ Mansour kii toog mooy taawu sëriñ Moustapha responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati di taawu soxna aasiyatu bu sëriñ Mouhamadunil Mansour borom daara di benn doom ci moom kon soxna umu sa ñëw bi rëy na lool ci man ku la ëpp du fi ñëwati de mukk ku la ëpp du fi ñëwati mukk kon maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ci sa barke yaay ak sa barke baay yàlla bu la ci kenn ëpple yàlla bu la kenn ëpple ci sa maam Seydi Aboubacar Sy yàlla bu kenn ëpple ci say maam alaaji Mansour alaaji Abdou alaaji Habib Sidi Ahmed waaye yàlla bu la kenn ëppale ci sa maam cheikhul xaaji malik yàlla na nga tibb bay tibbalaate yàlla na nga tibb bay tibbalaate yaayam day sama xarit la woon yaxya bii la yónni keroog dernière fois wàddi bi mu def fii ci grand théâtre yaxya mii la yóbbu yónni ak Mansour Mbaye ne ko demal ne Chérif waxtaan wa may def ca Grand Théâtre na ñëw waxtaanal ma ci sama maam Serigne Babacar si keroog bi may dem fekk naa mu fees del Grand Théâtre bañ baas ci biti biti bi fees del maa ngi ko fekk rahmatullah aleyha moom soxna Asi mu ngi toog mu ngi toog ci tànt bi di ma xaar ma yegg si nuyoo rek ak jaal mbaay bii mu jël ne ma Chérif ñëw nga ñëw nga ma ne ko waaw mu ne ma nañ dem ci biir nga waxtaan dal di ne Mansour Mbaye waxal ñooñu di woy ñu arrêté ñu arrêté Chérif ñëw na ma dem mu jël toog ci seesu kanam yi ñu jox ma sees ba ci gën a rafet ma toog mu ne ma waxtaanal ci sama maam Serigne Babacar ma waxtaan ba yeggal jox imam Moussa Guèye mu baax mii mu waxtaan fekk maa ngi amoon beneen conférence bi may dem moom soxna Asi moo ma gunge ba ci bunt bi mu wàññeekuwaat kaset booba lañ jël yóbbul ko sëriñ Mansour borom daara ji mu déglu ko ne ah sama doom jii de li mu wax ci sama sama baay foog ma décorer ko dal di ne sëñ Habib yow lu ma wax rek nga def ko bii moom bu ko def maa koy def fan yooyu tuuti lañ ci teg mu dem France di faju ji faf génn àddina moo tax sëriñ Habib mottali ko ca kër alaaji Yuusu Jóob ca Wakaam solalee ma mbubb ma ci kanam yi ñëpp boole ci xaalis bi bàyyam waxoon dàbbaliwaat ko ca déwén sa jox ma beneen mbubb moom mii yaayam bokk naa ci ñi ko mujj seeti maag Mansour mii àndoon ca Tiwaawan boobu mu ngi ci feebar bi ma ñëw fekk ko ca waañ wa li muy feebar feebar mu ngi séddale loxo yaa ngi niin ma ne ko waaw yooyu soxna si yow xanaa tawatoo mu ne ma ah déedéet tawat bi ay dara lii ci la bokk ci la bokk mënuma ko ñàkk a def xam nga sama baay moom moo waxoon ne fukk moom moo waxoon ne li yonent bi rawee si Sayyidatuna Fatima la may rawee te li ci des bareetul te xam naa ne sama papa du waxante keroog maa moom ñu ngi toog nii ci véranda bi di waxtaan mu ma juróom-benn weer la waxoon la may rawee te juróom-benn weer yi weer a ci des mu ne ma damay profité li ci des ma liggéeyal ko sama maam Serigne Babacar Sy te boobu mu ngi feebar boo ko gisee rek nga xam ne soxna Asi mii dafa feebar ba ma fa jógee ci seeti boobu ma ko seeti ak fi mu génnee àddina moom soxna Asi matul un mois kon bokk naa ci ñi ko mujje gis muy ku baax faawaat la boobu mu taxawal nag ba jógee fi ñu teg ci loxol doomam ju baax jii di taawam yal na nga naal lépp la sa baay ak sa yaay naal sa baay moom lim liggéey ñëpp gis nañ ko sa yaay lim liggéey ñëpp gis nañ ko waaye li ko nit ñi di gis gis gis gis yal na nga leen ëppale nit dina am ci barke ay woy juróom lu ba ay woy juróom amut ñun amuñ ci barke yonent bi lu yonent bi amut ah caméra yaa ni caméra yii ne ma daal àddina bi yëpp di ma seetaan yonent bi amoon na ko oto yu neex yii nag avion yu baax yi sañse yu jekk yi ceebu jën yu fatt yi ah yooyu yonent bi amoon na ko ah yi yonent bi daan na ko dugg njaga njaay ah fuñ ko amee ci barkeem ah, kon am nañ ci barke yonent bi lu yonent bi amut waaw ah, moom mii mën na am ci barke ay maamam ak i baayam lu baayam yi amut lu maamam amut yal na ko yàlla def ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant soxna Astu Touré ak euh, mbokk mu baax mi nga xam ne moo nekk ci aéroport nekk fa kilifa di fa yëngu ba soxna Astou Touré boole ñu ak moom ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm soxna Astou jaxab bi lañ nit ñi xam waaye ma ne Astou Touré rek yëpp benn la bu sëñ de so alxaaji Demba Ba Samba Ba Samba mooy Demba rek waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm moom it ak njabootam gi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñépp di wax ne a ah xaw ñu xaabaabal tuuti tey waaye tardé bi ma tardé ba ko waral ak suñu sëriñ suñu sang bu baax bi nekk ci suñu biir kon dañ doon tari pour mu dégg waaw ñun dañuy tari ci suñ kanamu sëriñ bu baaxee ah sëriñ bi nañu jërëjëf mu delluwaat radiyallahu anhum wa radu anhum ah su jubul mu ne suma ma sañoon nga defee nii ak nii ñu jubbantiwaat ko bu ëllëgee rek loolu lañ seq ak suñuy sëriñ mooy képp ko sant si Seydul Xaaji Malik di sa maam rek loolu lañ seq ak yow moo xam ci jigéen la moo xam ci góor la ñëpp a yem ci man kon nag soxna soxna umu jazakillahu xayran yal na yàlla fay la te guddal sa fan te may la wér ak wérle nga sut sa baay fan sut sa yaay fan sut sa maam Seydi Aboubacar fan sut sa maam Seydi Hadji Malick fan waaye sut sa maam yi ëpp fan ci njabootu Seydi Hadji malik muy sa maam Alaaji Abdul Aziz Dabbaax yal na nga ko sut fan te dese seeni barke day séddaate ci barke bi yal na la ko yàlla defal ak mboolem ku ñuy déglu di ñu seetaan it yal nañu ci yàlla sédd ñun ñëpp ba ñuy séddaate ñu itam ci mbaaxi ci daraja kii ñu doon waxtaan waxtaanee mu di Cheikh Seyd Ahmada Tidiane radiallahu an samedi bii ji ñëw nag la ñuy def collectif bi jeexal ko ci lu dul jeex incha allahu taala di wax ñëpp ne kontaan nañ yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla defal sutura yal na ñu yàlla def jullit xaqan ñu ko defee ba noppi yal ñu yàlla def ñuy taalibe Cheikh Seydi Ahmada Tijaani xaqan ba kenn ku ne fa nga tënku yaakaar fa ne mën nga fa amee Seydina Cheikh ngërmandeem yal na fa yàlla dëgëral sa taxawaay dëgëral fa sa pas-pas dëgëral fa sa yéene ba ñun ñi tënku kër Seydul Xaaji Maalik ba ci Cheikhu Umar ba ca Cheikh Mohamad al Ghali ba ca Cheikhu na Tijaani yal nañu yàlla may ci suñuy barkey sëriñ lu suñu sëriñ yi amutoon waaye nag dem ànd ak muurloo ko ànd ak teraanga ju sax dàkk ak wér gu sax dàkk ak wérle ak gudd fan ak mucc ak mucc muccile ak wërsëg wu yaatoo yaatoo yaatoo ba kenn ku ne loo bëgg a taxawal nga taxawal ko loo song daan ko in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib allahuma bi jaahi saydi ahmada tijaani taqabal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim wa bi jaahi cheikh saydi mouhamad al ghali wa bi jaahi cheikh alhaaj omar al fouti wa bi jaahi cheikh saydi alfaahi mayoro wele wa bi jaahi cheikh saydi alhaaji malik ibnu osman wa bi jaahi ibnihi wa afhaadihi wa duriyatihi ka cheikh saydi ahmad si wa saydi aboubacrin si wa cheikh alhaaji mansour wa saydi haaji abdul aziz si dabbaax wa seydi xaaji habib si ibnu seydi alxaaji malik wa bi jaahi afxaadihi ka cheikh seydi mouhamadun il mansour ka cheikh seydi mouhamadul moustapha si jamil wa seydi mouhamadun il mansour wa seydi cheikh ahmad tijaani si al maktoum wa cheikh seydi alxaaji abdul aziz al amin wa xalifatina haada cheikh seydi aboubacrin si ibnu seydi xaaji mansour si ibnu cheikh alhaaji malik si allahuma bi jaahihim wa bi barakati haadihi alsayida alkarima soxna umm si bint saydi mouhamadul moustapha ibnu cheikh saydi ahmad tijaani si almaktum allahuma bi jaahiha taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim bi nuuri wajhika wa bi jalalika wa azamatika wa kibriyaika wa bi jaahi nabiyika almustafa wa waliyika almujtaba wa aminika ala waxyi sama saydi alawalina wal axirin alqurayshi almakki almadani alarabi alabtaxi wa bi jaahi ibnihi wa xalifatihi wa mahbubihi wa aminihi waarisi sirrihi alqutbi almaktum abil abbas mawlana cheikh sidi ahmad atijani radiallahu anhu wa bi jaahi salaati alfatixi lima ugliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaqi bilxaq alhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi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 بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا